KP moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show Talk Show dellu siwaat ci kattanu yàlla ci seen télévision Walfadjri la voix des sans voix ak seen site bi lee di solution info TV ñu nuyu leen yéen téléspectateurs yi ak internet yi ñuy topp saa su nekk du lundi au jeudi ci sunu magazine bi ñu ziar bu baax tey nag ci talaata ji dinañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat Omar Bun Xataab Gueye seq waxtaan ak Ndongo Samb Ndongo Samb nag nañ seq ak moom waxtaan ci situation ak li ko jot dal bu nu ca noppee actualité du jour ñu ndar ko ak nepad musical mbay daane Amar bun Xataab yaa ngi ree de maa ngi lay nuyu di la ah, ziar sañ sa bee rafet moo tax sañ bi merci ah. <laughs> di la ziar bu baax di la nuyu di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mm. di sant yàlla bu baax a baax di nuyu maa jigéen madame Dieng ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu El Hadj Ndiogou Mbengue saa verte bi baax na. Mm. Ah, waaw mu sëñ Sidi mu sëriñ Abdoulahane Mbacke. ñu ngi koy ñaanal mu gën fee yàgg gën a wér. waaw di ndongo sàmb moom tamit waa Touba la ah. mm-hmm. waaw moom tamit eh, nekkoon ci kaso bi ay weer. génn la mu nekkoon ci kaso bi ak la ko dugaloon incha allah moom eh, dinañu ko wax eh, moom ak sëñ Assane Mbacke. surtout que jamono yi prison yi dafa def actualité dinañ ci dikk ak moom moom tamit mu am sërite bu ñu indil. kon ci kanam incha allah dinañu wax sëriñ boobu mooy lan ak euh, lan moo waral euh, mu indi ko di nuyu ñëpp euh, waa Kër Massar waa Géejawaay waa Ndar réew mi yëpp ñu ngi leen nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di masawuñu ñëpp ci coonaay réew mi. kon di nuyu sëñ Sidi tey bu ña Cheikh Samba Ka di nuyu waa Géejawaay ñoom di jë om ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kon ci kanam rek. ñu dalal Ndongo Samb incha allah. ci kanam tuuti lay doon ma jigéen Diop Dieng Sall maa ngi lay nuyu boo nag. gém bi fii lañ koy indi ba yóbboo bàyyi ma nuyool fay naa la. waaw waaw nuyool rek saa waxal ci mange falaayam ay ajaratu yow lii rek moo mooy tax ñuy xuloo ah. <laughs> dañ koy woy di ko topp rek incha allah maa ngi delloo ziar bu baax a baax mm. te lay ñaanal jàmm ju sax dàkk di ko ñaanal waa plateau bi yëpp ak képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji mm. dem ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuy leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulahat Mbacke mm. yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wéer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp di fay oma nuyoo daal di nuyu nag euh, docteur Meng euh, sama xarit bi docteur Meng waaw docteur Meng mi toog mm. waaw ah, maa ngi koy jaar bu baax a baax. Mm. Ah, te koy ñaanal yokkute. Ah, ca kaw ca kanam nuy nag. ganu Omar bi di sàmbeen bi. ajaratu <laughs> dama koy baab. <laughs> maa ngi wax ni si kanam tout tuuti daañu ànd ak yéen nag ci actualité du jour ñëpp xam nañ ni nag dañu dëgmal ay élections yu ñu jëm ci mille 2024 bi eh, jamono ji nag nekk jamono joo xamante ne nii nit yi ñu ngi daw waaye politique yi rawatina surtout nag ñi nga xam ne dañu bëgg a samp seen dëng ànd si élection yi di wuti parrainage waaye nag fi mu toll nii ampleur bi mu waroon am amu ko ci kanam tuuti daañu ci ñëw ànd ak yéen gën koo yàttal incha allah di wax ne nag gem bi. man ak waa ñëw yow moom man yow moom neex ngaa lijjanti <laughs> yow moom mu la yëkkatee toog sa kaw ñu arrêté ko <laughs> mu jeex ji maa ngi lay nuyu di la ziar ma jigéen toftalal na la beneen titre de. Adja ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow. Mhm. dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak wér. waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. Mhm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. Mhm. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ziar wér nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Mhm. nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimu Laaxlaa nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi. Mhm. ñu ngi nuyu maman Dieynaba Fall kooku sunu maman la. waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la. di nuyu Umar bun Xataab di am ci moom mbégte kontaante macha allah sukran kontaan ci moom bu baax di waaye ñu ngi nuyu bu baax ndongo sàmm mhm. ndongo sàmm macha allah ñu ngi lay nuyu <laughs> di la ñaanal jàmm macha allah jàmbaar la waaw xam naa ci kanam tuuti dana ñëw faram daal di tojjeex wi mhm. waaye macha allah jàmbaar la daal waaw donc ñu ngi lay féliciter mhm. ci li nga xamante ni bi amal nga ko ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ma jigéen ma ca genn ak basang te dëkk ci tappale macha allah nga xamante ni <laughs> eh, dafa bëgg a duut jaar si jéem a créer ay affaire pour jéem a ci sama maayen waaw loolu nag bu yaba nga xam ne mënoo naa ni <laughs> sama la <laughs> loolu boo yaba nga teg ko ci suuf te xam ni du yàlla waaw parce que nandite maa nga bëgg a kii ak man voilà Adja léegi yaa ngi sàmbeen bi la ñuy nuyu sàmbeen bi j'espère que du keneen yow la ah man xam naa leen boo demee lekk nga fa nekkee woon jërëjëf jaamul ñëw ni yow la loolu yëpp dina leer ci biir waxtaan bi ñu ngi lay nuyu ndongo am plaisir dalal la. waaw ah, asubilahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin maa ngi nuyu ñëpp di jiita nuyoo bi waa Touba. Mm-hmm. di nuyu euh, xalifa général di Murit di nuyu sama mbokk prisonniers yi. Mm-hmm. di nuyu waa waa Walfu ñëpp di nuyu. d'accord ayca ñu ci nuyu nag sëñ Sidi mu sëñ Abdou Lahad di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sëñ Abdou Karim niki noonu ku sëriñ ci biir Sénégal ndax ñoom nag ñooy suñuy ndëgër laay ñu dem jëli lu ay di njàmbat. Amar ñu bàyyi la ak sunu gan. waaw ndongo Samba. Mm-hmm. ndongo ñëw ci jamono joo xam ne. prison yi doonoo def actualité ndax boo demee ca camp pénal jigéen ña ña ngay grève mu metti lool ci ñoom ci conditions yi nekkee boo demee Ziguinchor 147 détenus ñoom tamit ñu ngi ci grève de la fin ñenn ñu jàppale leen ci manifestation yow nag ci manifestation yooyu lañ sukkandiku woon ba teg la loxo ca Touba yow ak Serigne Assane Mbacké léegi mun nga ñu expliquer ci yenn anam lan la jàppe woon def nga ñaati weer ci kaso waaw kaso bi moom def naa fa juróom-ñaari weer. sept mois sept mois neuf jours. waaw man euh, dama doon jëli rendez-vous Mbacké le 10 février 2023 léegi bi ma demee ba Mbacké léegi sama xarit xarit bu jigéen bi moom moom mu ngi rendez-vous dama ko doon jëlal muy Bousso. rendez-vous la euh, pour bët la woon. Ah, ordonnance pour hôpital mhm. léegi bi ma demee ba si hôpital bi moom ma yowoo Bousso sorog ne ko léegi da ngay déplacé wu ñëw boo ñëw ba si raay moom sax boobu mu ngi woon école. ma ne ko boo ñëwee ba seraay bi léegi man dinaa la jël si léegi man ci laa déplacé wu di ko jëli ci lañ ma jàppee si ginnaaw euh, bi ñu ma jàppee sama ginnaaw fii la police bi téye bi mu ma téye ne ma da ngay manifester ma a ko manifester wu ma encore ma mu waxaat ko ma ne ko manifester wu ma ci la ma sax da ngay fen daal ma wax da ngay fen ñaari yoon daal mu yóbbu ndekki li tax mu yóbbu ma dama takkoon benn bracelet vert jaune rouge mooy boobu. bu Pastef bi déedéet boobu Pastef am. wala équipe nationale. waaw équipe nationale ah. laa takkoon. Mhm. léegi ci la ma yóbboo ci gars yi ma ci 4-4 bu bu weex bi. ci moo dugg rek am ku ma dóor benn casque sama fii nii ba nii ma xew neew neew bi mu ngi ci dañu casque bi la la dóor ci bopp waaw casque bi la ma dóor fii nii mhm. keneen ki daal may mbéj bi ñu demee bu ñu yóbbu ñu ci police ba bi ñu yóbboo bi may wàcc noonu ci entrée bi rek maanaam am na ko xam bi ma wéexee ci port bi laa dal ma dal ci porte bi keneen ki daal may mbéj bi ñu ma mbéyee après ñu dugal ñu ci benn ruq bu gàtt bi foofu ma taxaw noonu rek génn naa ordonnance bi ne ko man rendez-vous fi beneen police bi sax mu ngi naan mu ngi naan léegi bu xëyee danañ leen déglu bàyyi la ngeen dem ci lañ xëy noonu ñu ne mënatuñ ñoo bàyyi waaw. bàyyi jàllale leen. waaw dinañ dañuy jàllale. Uh-huh. Euh, boobu jamono mooy jamono woon ñu faj Walfadjri ci manifestation yi amoon. déet boobu tëjagul ci la maanaam boobu tëjagul non non wax ma tëj bu mujj bi mooy jamono bi noonu Modou Matar Sarr doon filmé xaw ma lan ak lan mhm. wala boobu ban manifestation Pastef la woon parce que bu nee manifestation du ñàkk ni am na lu fa xewoon waaw le 10 février bu Ousmane Sonko di ñëw Touba boobu la wax mhm. bi ñu dugalee foofu noonu ci ci ci ci euh, gendarmerie bu Mbàkke maanaam dugal nañu fu xat foo xamante ni maanaam distance bi boo xoolee yaatuwaay bi matul 3 mètres am dafa am wane ci biir nga xam ne foofu rek mën nga faa jëlee feebar bu bon nga xam mujjantal gi man sama jëm bopp xam nga jaar naa daara ak situation daara ñoo fa nekk moom daara ñu ci bëri jaarun daara nga xam dama mujj obligé mbubb mii nii laa soloon moo taxoon sax ma solaat ko tey mhm. mbubb mii laa soloon lii ma sol nii lépp mhm. moom laa soloon amul lu ci lu ci kii lii donc moo ci yokk muy bracelet passif bii nii ma sol mhm. yaa ngi amul lu ci manqué. yow Pastef nga bokk. non man bokkuma Pastef bi ma génnee laay doog a bokk Pastef parce dañ ko ma fitnaa lañ ma teg teg ma lu métti te dara waralu ko lu mbir Ousmane Sonko léegi nag ma ne nag damay engagé wu dugg loolu moo waral ma ma takk bracelet Pastef nii. Mhm. mais ci biir foofu dama dama gis gaa yërëm leen summi sama mbubb mi doo leen ëpp. ñetti fan yoo xam man damay taxaw toog parce que mënuma tëdd. taxaw toog tëddoo nelaw amul nelaw taxaw toog parce que mënoo taala say tànk. boo soxlaa sa bopp nooy def. maanaam nit ña maanaam nit ña fañ nekk. moo hmm. moo bari foo fañ fa dugg ay nit moo ëpp dafa ëpp. ba hmm. bari lool te dafa xat. ba pare boobu yéen a ngi ci garde bi. waaw oh, ñuy garde hmm. ba pare foofu wanag bi fi la nekk nga xam booy dem wanag sa morom yi dañu lay gis xam loolu tamit jaadu sa morom dañ lay gis sutura amul foofu yaa de loolu loolu metti na ma lool waaw mais dóor yi la dóoroo nag casque bi ba léegi sa kel yi mi ngi des sa li ba léegi nii de sama bopp bi day metti yàlla xam na ko ba ki demoo njaari laa mujjee dem hôpital wallaahi ba nii may xëyoon nii affaire bi day metti day jàpp sama bopp bi. ñoom lu ah. la la jàppee bi nga ñëw toog enquêteur bi déglu la balaa ñu lay jàll lan la la reproché. non man moom avant ñu maa jàllale man waa ji wax na ma ma wax delloo ko mënu ma. Eh, dañu doon manifester ci sonko yi ngeen ma ne ko bokkuma ci sonko yi man rendez-vous laa leen jëli mu ngi nii tombanteeg sax maire bi ñëwoon na fa bi mu ñëwee wax na leen kii maa ko yónni woon. Ah, ñëw na andi leen ko wan leen ko bi mu leen ko woon maa leen gis xam nga garde à vue bi day am benn grillage boo xamante ni. Ah. da ngay bi ñëwee wala daal da koy gis. léegi bi mu ñëwee man maa koy seen mu génnee kayit bi nii dina wan ne ko man maa leen yónni woon taxul gars yi bàyyi ma te pourtant am na ñu fa ñëw ñoo xamante ni ban ñëwee wax dañu leen arrangé dem waaw comme kon réew mi foofu la toll branlo boo ko amul daal pour nga jàll moom du yomb moom waaw. léegi ci lan la jàpp. Mhm. nga def sept mois. neuf jours. neuf jours ci loo xam ne yow hôpital nga doon dem pour faju ji takk bracelet Sénégal bi ngay génn mujjee ak bracelet Pastef mhm. léegi yow ginnaaw bul la jàppee mhm. ba bàyyi la bi lay bàyyi lu la wax maanaam koo jàppee dara boo koy bàyyi di nga teg dara ci loxo waxuñu dara loolu sax laa bëggoon parce que man dama décidé woon xam nga bu doon euh, maanaam ci yoon lañ nekk man dama la ma la ma xalaatoon ma ne tant que man ñun waxuñ ma man lan laa def du ma génn prison waaye damaa xam ne jamonoy Macky Sall lañ nekk. na naa génn rek. Ah. waa waaye bi ñuy libéré. Hmm. maanaam dañoo xëy rek yoo ñu ñu signé xaw ma fu ñu sukkandiku ba tax ñu bàyyi ñun ñëpp ñu libéré ndoo 47. personne ci guddi googu noonu même euh, kii bi euh, mardi bi ci guddi. ban jamono lan la bàyyi. Euh, kii mardi le 19 septembre bii passé la ñu bàyyi. Hmm. vingt vingt et une heure amul àtte amul dem tribunal amul toog procureur da leen bàyyi rek nañ dem leen. non dem nañu enquête nag. Hmm. dem nañu enquête. bi hmm. bi ma demee enquête bi ñu waxee ma ne ko man rendez-vous laa ñu jël ca Mbàkke lañ ma jàppee mun ma nag loi bi moo ñuy toppee lu ñu yàq lu ñu sàkkaase. man ne ko nag lañ yàq Touba lañ ko yàq maam benn extension la ak benn instant Touba ma ne ko man Mbàkke lañ ma jàppee léegi man lan lan lañ may toppee wax naa ko loolu akitir maanaam li ñuy naan dañ ko yàq tubaab lañ ko yàqee jàppee la bàkkee man bàkkee lañ léegi man ko lan man toppee man na ko en même temps jeexee danañ xool lu ñu def solution assemblée pour ñu libérer lañ bàyyi leen man na ko daal lu mën di xew feenee 54 53 yi 54 loon kenn ki jigéen la muy soxna Diop quartier femme la ñu ko yóbboon mën na ko fee defuñ fa dara bu ñu xëyee lekk naan tëdd lañ fa nekkee te bu doon ñun dañoo def sax ñun boobaa du garaaw ci ñun quoi ñun defuñu dañoo ramasse ñi ñi doon ñi doon manifester ak ñi ramasse bokkiwul ñi doon ñi doon manifester jàppuñu leen ñi doon doxi seen soxla leen jàpp waaw mm-hmm. bu ñu yemoon ci jàpp rek nga ma waaye jàpp fitnaal fitnaal yi rek dafa doy waar waaw mm-hmm. ba tey jii yaa ngi dem hôpital di ñëw saa dégg nga booy bi macha allah waaw waaw waaw xam nga loolu mooy euh, loolu mooy li ci li ci doy waar quoi que moom li nga xam ne moo ko dal nii bari na ñu bari ñoo xamante ne bii lu mel nii moom mooy euh, li nga xamante moom la léegi man damay ñëw ci beneen côté maanaam ci biir prison bi euh, ci biir prison bi ci nga bind kaamil bi ci biir prison bi waaw xam nga bon ñu jàpp la ci fitna fitna koo xamante ni gi euh, fitna ku doy waar jàpp la kii woo stress boobu yëpp nekk ci yow. lan fan la lan moo tax nga tëb tëb rek sa xel xalaat ni da nga war a bind kaamil. waaw ñu moom ñu duggee ci prison bi la quatorze la quatorze moo nekkoon sama mandat de dépôt le quatorze février. Mhm. moo nekkoon sama mandat bi ma duggee. maanaam toog nañ ñu tolloog cinq mois waaye bi ñu duggee rek la quatorze la dix-neuf lañ commencé di jàng kaamil sa bis bu set ma yónnee kaamil alxuraan bis bu set ñu xëy wàccee kaamil ba ba niñ génnee ñu jàng fa deux cent cinquante et kaamil ci dernier mois yi nag nga xam ne sixième mois bi ci la sama xel rek dama yeew rek sama xel ci kaamil bi ci laa waxtaan ak sëñ bi waxtaan ci sama benn xarit ku naan ngañ di ba mënuma waa loolu lañ ci jublu ci laa yónnee matuwaay yi mu ñëw ñëwee sax dañoo téye yenn yi parce que foofu daanaka boo xoolee am na ci yoo xam ne dañu koy téye muy lu mel ni xalima ak daag yu ni ñu def ay pexe ba ba loolu dugg bi dugg see nag ci laa commencé kaamil bi. ko doon bindee. waaw daa laa ko bindee daa ak xalima xalima bi dañ ko doon tere. xalima parce que xalima mën nga mën na jam. waaw loolu lañ ko fay tere waaw. waaw xalima lañ ko waaye nag man bu ma yónnee xalima yi dama dañ ko damay wax ñu sotal ma ko ci biti xam nga lañ seet nañ ko fay tere. waaw léegi bu ñu ma ko sottalee ci bu ñëwee rek man damay ñëw commencé. Ah, xalima bi ñoom doon nañ ko gis. na jàmm man bi mu demee ba mu yàgg. dañ hmm. dem parce que xam nañ ne man. Ah. bind alxuraan rek laa ciy def. Hmm. mais première bi moom dañ ma ko doon bañal moom première bi. Hmm. daawul dugg bu ñëwee kii koy indi sax danaa ko lii du fi dugg. mais ah. kayit yi moom ak kaam bi moom dina dugg. ci première bi noonu mais bi ñu demee ba mu yàgg xam nañ ne ñun chambre chambre vingt lañ nekk te foofu ay manifestation la ñoo fa nekk mm-hmm. dañ dañ ñoo beral ñun manifestation yi mm-hmm. léegi ci lañ commencé di ma bàyyil affaire yi di dugg ak yooyu noonu ñu bàyyi la ngay bind waaw ah, ma commencé kaan bi bind ko ci ñaar fukki fan laa bind kaan bi ñaar fukki fan waaw laa bind bi nga ko bind vingt jours waaw mm-hmm. ah, kaamil bi moo nekk nii ci ci ci ci vingt jours laa ko bind. kaamil maa ngi gisoon ah. son yi bu doon vérifier sànq. Uh-huh. kaamil bi ñun moom boo ñu ko wanee mënuñu cee wax lu leer. mais bind nga lépp saytu nañ ko borom xam-xam. a saytu nañ ci saytu ci lañ nekk nii pour l'instant nii. ci saytu ah, lañ yaa ngi ci saytu. Ah, waaw bi may ñëw nii sax am na ci loo xam ne joxe ñuy saytu. waaw ñuy saytu ak yu ni waaw. Ah, waaw lañ nekk nii am na ci loo xam ne sax ñu ngi koy saytu fi mu toll nii. yow biir na leen ni kaamil bi moom mat na te. waaw kii man na ndax si siñ siñ bi sax mu ngi woon siñ Assane Mbacke mu ngi bi mu noppee. moom laa ko njëkk a jox mu xool ko. mu xool ko daal moom bi mu ko xoolee est-ce que am na temps wu xool ko parce que moom it mi ngi woon ci jafe-jafe est que xool na ko xool bi war ni kaamil bi mat na kaamil waaw xool na ko moom xool na ba ba ba am lu ma ci wax dénk ma ci ay kàddu yu am solo ah yow noo ko xamee maintenant de bonne foi parce que de bonne foi waxuma de ko foi quand même tamit dañuy leeral ndax kaamil bi mën na kaamil parce que moom da daan jàngale kaamil ci euh, alxuraan ci biir prison la kon kii jàngale kay ah, moom tëbul rek lii quoi six mois yëpp yow sëriñu daara nga woon wala avant ngay dugg ndong nga woon nekku moon sëriñ daara nekku moon kii man dama mm, ko woon dong ndax xakkee nekkoon naa dong waaye nekku moon comme sëriñ daara waaye alxuraan man daal waajooju di wër euh, te muy laaj booy ci TikTok bi kooku tam war a organiser benn euh, kii euh, xam naa sax kooku daal defe naa ne moom moom doy na ma ci bu vérifié wala sax sooy bu bi la doon jàmbar ah, di xool ah, kaamil bi ok <laughs> léegi bind bi moom da nga bindoon rek kaamil bi pour symboliser dugg bi nga dugg kaso wala lan moo tax nga am kii wu yëg-yëgu ne da nga war a bind kaamil. déet man moom dama yaakaar ne. xam nga Sëriñ Tuubaa ci ay mbiram lañ nekkoon nekkee. Mm-hmm. ma yaakaar ne moo ma xeetal ci loolu ndax yaakaar naa ne ci mbir Sëriñ Tuubaa boo ci nekkee mm-hmm. da ngay da ngay da ngay nekk bëggaat ngay xeeb ci li nga nekkoon. dama mm-hmm. xëy rek sama xel nekk ci kaamil moom. ma ne taxawuma sax bi mu ñëwee ci laa commencé suba gi ma jàng ñaar fukki si ngoon damay jàng kaamil boo xam man rek maa koy jàng sama bopp 17 heures ba 22 heures ma jàng sama kaamil bopp teewul may bind euh, ci ci Alxuraan yi nga xam ne aw ma bu ma fa nekkee ba ni ma génnee. jàng alxuraan ak bind ak di ak di jàngale li mu mën moom laa fa nekkee woon mm-hmm. waaw. yow da ko doon nekk pour rey temps bi quoi pour gérer aussi tamit. non pour xam xam na toog toog naa defuma dara. waaw loolu temps la. Mm-hmm. dama toog xam na fii moom defuma dara. Mm-hmm. kon war na war war war naa mën a. nekk ci alxuraan yi ak ak ci ci ci ci xasida yu ni mel. léegi la fait nga génn rek nekk Pastef dañu la jàppandoo woon ak ñoo xamante ni bii ay patriote lañ euh, ñooñu am influence bu ñu am ci yow foofu lañ la influencé wala bi nga génnee rek nga loolu wala yow da nga dugg rek ne bon comme lii daal moom lañ ma jàppee nag fan la affaire boobu yeewoo ci yow. non man moom avant ma dugg euh, ci prison bi. Mhm. Ousmane ko moom moom moom yàlla moom la yàlla la man ma bëgg ko. moom la yàlla tax. Mhm. daan naa ko suivre tamit aussi. Mhm. mais bi ñu ma jàppee. man mosumaa dem ay manifestation waaw mosumaa dem ci ay ndaje mosumaa dem ci ay gisante ay waa Pastef ak yooyu mosul am mhm. mais bi ma jàppee dugal ma ci prison bi nag mhm. ci laa tëba tëb rek man daal jël décision bi nag su ma génnee moom mhm. ah damay engagé wu Pastef nekk ci to te bi ma génnee ba léegi ci yoon boobu ci laa nekk nag yaa nga ca waaw maa nga ca waaw moo tax gis nga gars li ñuy def pareen saa yi dañuy def dara fekk ne <laughs> léeg sax ñoom ñooy Ah. par kereel Ousmane Sonko ay soppe. foofu biir <laughs> prison bi rek nit ñi dañ fay dajale pour pour Ousmane Sonko maam gën a am doole parce que dañuy da ngay gis jotaay boo xamante ni. Pastef hmm. lañ ko tuddee ci biir prison bi. bu ñu génnee ci waxi Pastef la ñuy nga xam ne hmm. Macky Sall li muy def li muy def nii di tëj nit ñi. yaakaar na ne mu ngi mu mu ngi mu ngi kii mu ngi mu mu ngi defal boppam. fekk na hmm. mu ngi mu ngi def loo xamante ni xamu ko sax Ousmane Sonko lay gën a dooleel foofu parce que prison moom koo fa tëj parents yi ñooñu di ñu ah. bëggoon Macky Sall sax bëgg parce que dañuy sonn waaw léegi nag euh, maanaam ma ma ma ma doon wax ne maanaam ci ci ci côté boobu mm-hmm. am na ci ñoo xamante ni. Mm-hmm. tëjoon nañu fa mu mu ku mel ni Gora Ka mm-hmm. ak euh, Mbëgg Diop. ak euh, Cheikh Ndiaye ak kiiwaay nu mu tuddati ñi ñeneen des moom jàppuma seen tur. waaw ba léegi ñoom ñoo nga fa te ñun ñoo fa bokkoon nekk. léegi lu tax ñun ñu libéré ñu bàyyi ñoo na. waaw léegi doon loolu tamit bëggoon naa ko waxaale. moom mi ngi wax ci waxu alxuraan te xam na li diine wax ci ñi nga xam ni dañu nekk ci prison ba di def grève de faim ñu wax ni li fa am sax ci e, jamono ji ñuy wax ni ci ñi nga xam ne dañu e, xiifal musul am ci prison yi est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéen doon jàng alxuraan yi ak ndaje yi ngeen di def foofu pour waa Pastef yéen a ngi doon ñaax ñi nekk ci grève de faim e, pour ñu bañ ko def parce que ku ci loru walla nga yaa nga dee ci mën na am yeneen conséquence yu la yu yu lay jural. waaw grève de faim moom daanaka nekkul loo xamante ni lu lu lu dagal la waaye nit ñi bu ñu koy def rek ngir tooñ tooñ gi ñu leen di tooñ mooy waral ñu koy def mais man suñ sàmbur sax bu ñu masaane jëm ci lu mel noonu man daaw ma daaw ma sax bokk ci ñekk daan def man sama jëm bopp daaw ma ci bokk parce que li tax daaw ma ci bokk mooy alxuraan ji parce que xam naa ne bis bu mu commencé grève de faim moom dootuma jàng alxuraan dootuma bind moo tax bu ñu masaane kii rek maam du ma ca bokk waaye nag ñoom seen droit lañ nekkoon parce que seen droit lañ ku ñu tooñ tëj fa defoo dara loolu rek moo la mën a mooy effort pour ñu lijjanti say mbir xëy na loolu mooy waral ñuy indi kii bi mais nekkul loo xamante ni lu dagal la parce que yàlla moom bu la tegee nattu rek dina ko teg ndax nattu yàlla moom dafa yaatu moom fu nekk lay fu nekk lay lay lay jógee waaw. mais sa diggante ak sëñ Assane Mbacke mu doon kilifa génn ci màggal gi. Mhm. est-ce que nekkul nii moo yombal sa génn mais balaa ngay ñëw ci yombal bi yéen ñaar seen nekkin ci biir kaso bi lan la la jariñ quoi parce que nee nga bi nga bindee moom xool na ko. mais leneen lu weesu xool bi lan ngeen doon dund yéen ñaar est-ce que nekkul ni loolu moo xawoon yombal sa nekk ci kaso bi. waaw xaw na ko yombal nag waaw moom bu yàlla bëggee di dëgg rek la yàlla bëgg ndax bu ñu nekkee ci prison moom daan nañ guddi bu jotee nii dañuy dañuy waxtaan di waxtaan ci yu bëri ci côté bu nekk te bu ñu mësaan a xëy nag xam man def naa armation. Mhm. ñu xëy dama koy defal entraînement domino euh, neuf heures bu ñu génnee ba ay euh, onze heures entraînement domino yeneen ak yooyu comme. domino boobu suñu day entraîné foofu. waaw suñ bi waaw bi mu dugg jugee ci biir maa ko doon def entraînement. waaw ah, dama def yaa ko doon kii quoi. waaw maa maa nekkoon kër ba ni ah. ba yàlla dogal mu génn. bu ñu paree ci entraînement man damay dem nekk continuer sama activité moom it ay activité ah. léegi nag moom moom wax dëgg fi yàlla day nekk nit ku baax. Hmm. ku baax a baax a baax boo xam ne daan daan nañu jàppale ci lu bare bëri. Hmm. daan ñu conseillé aussi man tamit ma nekkoon waayam nekk ci waayam ca laa bokk parce que lépp la jëloon ci wàllum julli ah koor gi naafila ak yii yëpp mën na ko jëlan teg ko sama loxo ma ko ma jiite naafila koor gi ak événement yooyu yëpp hmm. wallaay lancé boo masaane jàng kaamil ba guddi gi nii sax dafa may dafa may dafa may maanaam dafa may maanaam dafa may maanaam jël teg ma fu kawe daal man daal wax dëgg fi yàlla te loolu moom nekkul lu yomb surtout si Sëñ Fallou nga jàng alxuraan pare mu am taxawaay bu mu taxaw te bu may jàng sax du bëgg nit ñi di coow xam nga ak sàmbur rek booy jàng alxuraan hmm. nit ñi da ngay dégg buri bi fii coow fii da daawul bëgg sax xanaa neex nooy taree ak yooyu. waaw alxuraan ji moom. mais loolu il faut nga ñaman ñu ci dara de. <laughs> il faut nga taril ñu benn kii. <laughs> parce que parce que il faut ñu il faut ñu dégg ko ñu nit. ah déedéet xam nga alxuraan ji moom daanaka moom. waaw. daa doon loo xam ne su ma koy jàng damay yéeg moo tax lu ci bari du su ma commencé woon bëgg nga yéeg yéegal ñu il faut nga il faut nga yéeg yéegal ñu. moo tax lu ci bari nii. comme la la ma jàng sax ci kaso ba ci comme deux cent cinquante et am yooyu noonu. mu génnee ba léegi ba xoolee jàngatuma alxuraan ndax temps ba ngay am ci kaso. waaw waaw mënoo ko am ci biti. Mm. moo tax kaso nit mën na fa jóge baax. waaye tamit aussi nit mën na fa jóge daal di sànq parce que nit mën na fa jógee rek nekk nit ku bon. Mm-hmm. li koy waral mooy rankiñe bi bi nekk ci moom day dem comme que tooñ nañ ma dafay jaare rek kii commencé woon na bu gars yi am na ñoo xam ne sax ci commencé woon nañ dugg ci yenn yi di commencé tux man damay xëcc kenn waxtaan ak moom ne ko lii bul dugg ci lii yàlla mi la teg lii bu mm-hmm. soobee yàlla dina ko teg fi yàlla rek moo fi nekk mm-hmm. waaw ndax parce que du bëgg nit di commencé dugg ci dara ngir saalit wala di wax dara di jàmbat man du ma du ma bëgg sax dend ak koy jàmbat wallaahi lancé su ma dendee kuy jàmbat damay jug ci sensé un jour toog naa ci ma toog ak ñuy jàmbat noonu dama jug dem man mënumaa toog ak yéen. Mhm. parce que bëggumaa toog ak kuy jàmbat. mais condition yi métti na de. ah Diourbel mais am na ci ñoo xamante ni foofu fekk ngeen leen fa ay longue détention yi nga xamante ni dañ koy faral di wax nit ñoo xamante ni ñu ngi leen fa denc ay at ati at kenn waxul ci seen i problème kenn jugé wu leen kenn kii est-ce que gis nga fa cas yu mel noonu. waaw am na fa am na fa parce que ñu ma fa kii Saliou Diassé moom mu ngi fa moom moom moom ci jëm boppam yàgg na fa yaakaar naa war na fa am euh, ñetti at ba léegi nii waxaguñ ay mbiram ci dara waaw te bañ ñëwee moom mu nekkoon na sama waay ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni maanaam euh, yàgg nañ fa lool te ba léegi waxuñ seen mbir waaw. te loolu war war naa war naa war nañ ko wax seetaat daal. ñi yor liggéey situation carcérale bi foofu li yi di dénoncer tout le temps lekk bi baaxul nekkin bi dafa doy waar ak yooyu yow da nga koy dëggal. yeneen yi sàmbur yi. Hmm. xat na métti na am na sàmbur yoo xam ne benn wana képp la am. te tëddaay bi tamit dafa métti tàncaloo bi mais ñu suñ sàmbur rek moo ci ne moo ci neexoon de sàmbur me te yaakaar naa siñ bi moo taxoon waaw te siñ bi fa la newoon hmm. sàmbur boobu daal moo nekkoon sàmbur boo xamante nii moom neexoon na moom moo ci ëppoon ay mais comme li la ajaratu laaj mi gars yi lan la doon dundee foofu no dund bi maanaam ci ci dundin bi métti bi moom taroon na parce que commencement bi ñu doog a ñëw hmm. bi ñu doog a ñëw maanaam nombre nit ñi ñoo bari woon trop parce que cinquante trois la ñu woon bi ñu demee ba mu yàgg te leen xaaj treize yi dugal ci biir mais ñun dañoo quarantaine ñun fa ñu fi gars yi nekk détention bi ñun àgguñ ci biir ñun daa am fu ñu beroon spécial ñun. Mhm. mois yëpp ñun dafa am fu ñu nekkoon. d'accord léegi dafa am suraat boo bëgg tari parce que temps baa ngi jeex. <laughs> waaw ci dafa am ci li ma bëggoon waxaale sax balaa ma euh, kii waaw comme avant dugg ci prison bi. Mhm. yàlla dogal na vendredi bi nga xamante ni moom lañ ma jàppe woon. ma doon dox ci bëggoon yëkkati benn entreprise Seexul Xadim sax laa ko tuddee. doon ci dox doon ay financement ak yooyu noonu am na sax ñu ma jotoon waxal avant maa dugg ci prison bi mais bi ma génnee ba léegi sax mënaatuma leen dégg. yow li sa métier. ah man dama doon def informatique. Ah, def naa session def naa beauty. d'accord dégg. Hmm. léegi ma nekkoon ci ci ci loolu. ci tànk service doon waaw euh, maanaam ci loolu laa doon nekkoon. ma doon ma doon ut euh, financement pour taxawal ant benn entreprise waaw doon ut ku ma jàppale mhm. léegi yàlla dogal bi ma duggee ci prison bi génnaat xam nit ñoo xam ne bu ñu la déggee ñu yaa ngi ci prison rek taxaw yaakaar ne bu ñu la joxee jàppale wala dara dañ kii mhm. moo tax nag dama ci woo ñëpp mhm. képp koo xam ne mën nga ma jàppale ma taxaw entreprise boobu noonu man kii euh, pare naa pour euh, ñëw ndax bu ma ko taxawalee ndaw Sénégal ñoo ci liggéey parce que boo xoolee mu amul liggéey ma war a ndaw ni jël nii di ñii di def naka su. fan nga ko bëgg taxawal Diourbel. Diourbel laa ko bëgg taxawal incha allah. incha allah Diourbel ak parce que dama bëgg affaire bëgg bëgguma sax mu yem ci lii ma bëgg lu yaatu mu mu dem mu dem ci yeneen mu sori daal parce que vision bi ma am ci côté boobu sori na daal mhm. bëgguma sax mu yem fii waaw comme que génn naa ci prison bi mhm. man sama xel sax dafa jëm ci créer mouvement ndax man fi mu toll nii dama engagé wu ci ci affaire yi fi mu toll nii <laughs> que taxawal mu toll ci programme yooyu lay nekk ñoo mhm. koy waxtaan ci kilifa a mag a waaw yàlla baax na xam naa bu yooyu yëpp waree taxaw ak yooyu di nga dellu siwaat ñu waxtaane ko ayca bu bu may ñu benn siwaat rek <laughs> ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin arahmani rahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim xayril maghdubi alayhim wala dalin bismillahi rahmani rahim yasin alquran alhakim innaka lamina almursalin ala sirati mustaqim tanzilu alasisu rahim din sura xawma ma unsira abahum fahum xaafilun laqad xaqal xawlu ala aksarihim fahum laa yu'minun inna jaalna fi a'naqihim wa axlaalan fa hiya ila lasqan fa hiya ila lasqani fa hum muqmahun wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa axzaynahum fa hum laa yubsirun wa saa'un alayhim a anshartahum am lam tunzirhum laa yu'minun innama tunziru man ittaba'a zikra wa xashiya arrahmani bil xaybi fa bassirhu bi maxfirati wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma xaddamu wa asaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin wadrib lahum masalan ashaabal xariir iz jaa'ahal mursaluun iz arsalnaa ilayhim musnada fa kazzabuuhumaa fa asasnaa bi saalisin fa qaaluu inna ilaykum mursaluun qaalu ma antuma illa basaru misluna wa ma ansala arrahman min sayin in antuma illa taksibun qaalu rabbana yaalam inna ilaykum la mursaluna wa ma alayna illa albalaaxul mubin qaalu inna tataarna bikum la in lam tantahu la narjumannakum wala yamasanakum min asaabun alim qaalu taairukum maxakum ay zikrum balantum xawma masrifun wa jaa min axsal madinati rajul yasin xaaliyahu mi tabiul mursalin ittabihu man la yasalukum ajran wa hum muhtadun وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة نير الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا لتقوم يعلم ما خف لربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا عسرة على الهبة ما يتم رسلنا كانوا يستعصون ألم يركم أحنا قبلهم من الخلود أنهم وإليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الرواية baytun lahumul lardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha abdan faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa ahnab wa fajarna fiha min al-uyuni liyaa'u min al-uyuni liyakulu min samarihi wa ma hamilatu aydihim wa afla yasfurun subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu min an-nutfati mimma la ya'lamun wa ayatun lahumul laylu naslukhu minhu an-nahara fa idha hum muslimun was-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul 'azizul 'alim wal qamara qaddarna manazila hatta aada kal-'urjun jol xadim la samsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la saabiqun wa kullu falak yasmun wa ayatun lahum anna 'amalna surriyatin fil الفلك المسحون وخلقنا له من مثله ما يركب وإن نخرج فلا صريخ لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ويساخ لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من ربهم إلا كانوا عنها مهردين ويساخ لهم أنفقوا مما رزقكم الله وخال الذين كفروا للذين آمنوا أن تحموا من لا يساوي الأتحم وإن أنتم إلا في دلال مبين ويقول متى هذا الوحد إن كنتم صادقين ما ينصر إلا شيعة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصيل ولا إلى أحدهم يرجعون في السوء من الدراس إلى ربهم يسرون المحسنين قالوا يا ولي لمن بحسنا من مرحتنا سما واحد الرحمن وصدق المرسلين إن كان لا سيعة الواحد فيساهم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تسلم نفس سيء ولا إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سخل فاكهون هم وأزواج في سلح الرائم متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام حول من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجنون على ما عليني لكم يا بني آدم ألا تهبروا الشيطان إنه لكم عدو مبين wa an uhbuduni asa sirat mustaqim wala xaddala minkum jibilan kasir na falam takun raqilan asi jaalnamu lati kuntum tahadun islahu alyawm bima kuntum takfurun alyawma nahnu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulu ma kanu yaksibun walaw nazaa'u latamas ala ahyurin fastabaqu sirat fa anna yubsirun walaw nazaa'u lamasakhna ala makan ala makanatihim fama stata'u mudiyan wala yarjihun wa man nu'ammirhu nankusu fil khalqi afala taqilun wa ma ala nafsihi ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun qur'anun mubin tunzir man kana hayyan wa yahiqu alqawlu ala alkafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina arhamun fahum la malikun wa salallahu لهم فمنها ركب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نحن مايسرون وماهلون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من فتح فإذا هو خصيم مبين وضرب الله مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الإنسان وهي رميم وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من نسل الأخضر نار فإذا أنتم منه تخرجون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمر إشاء أراد سيئا يخلق له كن في yakun fa subhaana allasi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sadaqallahu al-azim mi ngi noonu ayca macha allah yal yàlla teg ci lépp loxo yal na yàlla sottal projet yi mm-hmm. yàlla defal la jàmm bu baax a baax waaw yàlla mën na ko ci daraje Muhammad xamul lu tax may ñëpp dafa bari ñoo xam ne ci daara leen génne booy yi ñu jàpp yu bari dama ci xam ay booy El Hadj Loum loo boo xoolee Ibrahima Gueye nay leer Cheikh Omar Bamba Diop nitu daara yi dañ cee bari loolu dañ ñuy tëj dinañ tëj ba tëj nitu yàlla waaw euh, ñu jaajëfal euh, Omar bun Xataab jaajëfal suñu gan jóge ba Jurbel muy Ndongo Samb ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ay ca ñu daal di jëli actualité du jour ay ca mi ngoog ñu jox son yi bu mu nuyoo balaa ñuy ànd ak ma jigéen Diop maa ngi lay ziar. Ah, xam nga li nga def maa ngi daw di yéeg nii nga daal ma koy kii maa ngi lay nuyu ma jigéen Diop di la ñaan yàlla jàmm. di la nuyu di nuyu El Hadj Sanjoogu Mbeng tey xam naa jommi la. Mm. waaw di nuyu Omar. ak euh, waa ji nu mu tudd. Ndongo Samb. am na solo en tout cas am na solo yàlla na yàlla barkeel ko. amiin yaa rabbi. waaw saar yu mu doon jàng mulki euh, mulki waaqiya ak yaasin. Mm-hmm. ku ko man di ko jàng kenn mënu laa liggéey. te am wërsëg. Mm. baax na macha allah waaw waaw ndongo daaraa ko dëggal ndongo daaraa ko financé ba léegi. <laughs> ma ne ko ndongo daaraa ko jàng ndongo daaraa ko dëggal ay jama ah. jigéen lan nga indi tey. waaw ajaratu euh, ni ma la ko waxee tout à rek bi ñuy nuyoo ñëpp xam nañ ni nag dañu jëm ci ay élection yi nga xamante ne ni njiitu réew mi la ñuy tànn waaye jamono ji nag dañu euh, toll ci eh, dem ci ay parrains yi nga xamante ne ni moom moo lay permettre nga mën a bokk ci élection yi ñu jëm waaye seetlu nañ euh, fan yi nag dafa am ay leader yu mel ni Pape Djibril Fall ak Abdourahmane Diouf ñoom nag ñi ngi génn di wax ne euh, gars yi ñoo jël daal mel ni daal Ousmane Sonko sax lañ ni la la ñenn ci askan wi di tudd ni moom moo bloqué li nga xamante ni nii moo di parrain yi parce que képp koo xam ne nii rek euh, Pastef nga bokk ci sa gox yaa ngi jéemam Euh, sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo di saskan ngir rek ñu xaar euh, ndigal li pour ñu mën a euh, mën a parrainer fi mu nii nag loolu mooy seen jafe-jafe ñoom te aussi ñi ngi wax ne ñi nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar te ñu wax ne foofu noonu ci assemblée nationale ba mën nañ fa am ay parrain nañu bañ a dem. wuti euh, li nga xamante ni nii moo di askan wi parce que bu boobaa ñoom dinañ leen xañ peut-être voilà dina leen handicapé peut-être ñoom nombre bi ñu soxla pour mën a dem ci yooyu la élection dina dina dina dina dina metti si ñoom ci mel ni dàmboo tudd na ko ci mbirum parrainage bi ñëw na si am si ay euh, mbir yoo xam ne leeral na ko ci ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne nii ñoo ngi nekk ci waa ci euh, politique bi te parrain yi fi mu toll nii ni mu doon amee empleur par rapport ak 2019 bi ngay dégg mbirum parrainage ñoo gis chaque jour nit ñaa ngi yore seen ay fiches di dugg si kër yi ngir rek mën a am ay parrain ren ji dafa mel ni loolu amoon euh, nemmeeku wuñ ko xawma lan moo xew yombul affaire bi dafa am fu mu amee blocage kenn xamagul fan la ñeen ñenn ñi nag ñi ngi koy jiiñ ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko parce que peut-être euh, tey jii nii su génnoon mm. amaana mbir yi dina leer di nga mën a xam ndax yow di nga mën a am nombre bi nga soxla pour mën a xawma zéro virgule un pour cent yi ñuy laaj pour nga mën a dem ci yooyu la élection Omar mu mel ni Pape Djibril Fall mi ngi jooytu gis nañ ko sax ci internet bi nit ñi jël euh, vidéo bi teg ko ngir rek wàllum parrainage boobu ma xam ne dafa nekk jafe-jafe ci ñoom. Mhm. waaw xam ne gars yi dañ leen woo ci parenage te pareeguñu parrainage balaa nga ci egg da pare mais li valable ci Benno aussi moo valable ci Pastef Pastef maanaam am na li mu député yu ko mën a parrainer te du dem ci mbedd bi noonu tamit la ko bennoo amee. kon tey jii parrainage citoyen bi nag boo gisee nit ñi di ko bëgg mooy natt sa bopp la ak natt sa doole pour que ñoo xam ne yow am na loo toogaale. léegi nag euh, bu dee ni euh, yeneen parti yi li ñu wax loolu peut-être loolu bu ñu demee ba ci kanam mën na ko dugal ci loi bi. maanaam tey jii boo mënee am euh, parrainage optionnel maanaam député yi wala élu yi peut-être que yow soxlawoo di dem di def parrainage citoyen parce que boobu mun nga bloquer ñeneen ñoo xam ne tey jii mënuñu am. Euh, parenage be ba pare nga xañ leen bi léegi nag li jëm ci euh, man bugguma di waxe noo xam ne xam ne Pape Djibril tuddul Sonko Abdourahmane tuddul Sonko ñoom danoo joytu rek li ci terrain bi loolu tax waxi waa mbedd mi moom des fois man dama koy bàyyi waa mbedd mi bañ a rek dugg ci détails yu Sonko moo bloqué li parce que man dama jàpp ni tey ji euh, Sonko avant mi dugg ci. mais Amadou Ba bu ñëpp dégg nañ keroog bi mu demee si jàkkaarloo mu xamal ñi nga xamante ne ni ñoo di citoyen yi que ni nañu xaar ndigal li wàcc pour que ñu doog a mën dem. non non ñuy wax citoyen yi les militants de Pastef lay wax. parce que boo nee citoyen da ngay wax sénégalais yëpp alors que sénégalais yi ñëpp leen bokk léegi nag euh, mi Pastef daf ci am wàll. Euh, Bennoo am ci wàll Abdourahmane am ci wàll. taxaw Sénégal keneen am ci wàll. loolu tax ñoom boo xoolee moo door d'ordre Pastef hmm. du question citoyen dana les patriotes am na droit wax ak seen i militants ne xaar leen ñu parce que daa am lu ñuy lijjanti doog a ñëw loolu ci seen biir parti la mot d'ordre la bu joxe seen biir parti mais joxuñu ko waa réew mi parce que da ngay sukkandiku ci Ousmane Sonko mosul taxaw ci réew mi mu ne bu kenn pare ne keneen maanaam ci ay kàddoom moom ni ñëpp bokk la daan wax. kon tey jii man kàddoom yooyu ca lay taxaw mooy na ñëpp bokk boobu moom ca la mës taxaw ca ca la mës ne kon lu tax ñu koy jooytu. non jooytu boobu ñu koy jooytu xam ne mag mu loolu du jooy moo xam la muy jooy loolu olof yi wax. ñoom ah, c'est parce que tamit am na lu xew nag Omar. non non non c'est pas parce que des fois euh, am na loo xam ne yow mun nga farak Ousmane Sonko jàpp ni lii dooleel Ousmane Sonko la te communication la bu ko yàqal boo ne Ousmane Sonko moom boole que les autres. noonu non non du wax du waxuma ne loolu damay wax ñi ñi koy waxee ci mbedd mi waaw parce que affaire parrainage dañ ne mm. na ku ne dem uti léegi nag ñii uti peut-être kuy dox ba si yàgg ngay jooy yooyu yaa xam mm. lan ngay jooy am ne des fois daf ci am euh, jeu boo xam ne état bi dañ dugal dañ ne deux cent et quelques candidats mm. mais ba tey jii mi presse bi ak communauté doon kenn gëstoogul ñooñoo ñan parce que deux cent et quelques yooyu bu doon dëgg la ah wala li ñuy def lu sérieux la di nga dox ba daje ci ak kenn mu yor fiche parrainage ne pare na ma mais boobaak tey tey jii ci deux cent yooyu hmm. ban gëstu lan def ba xam ñoo ñen ak ba ñuy jug lan moo leen yëkkati hmm. réellement est-ce que ñi ngi ci terrain bi di ut euh, parrainage hmm. loolu dara may bañ piège yu bi état bi di lalal yenn gars yi ñu daanu ci parce que communication boobu bu demee ba dox mooy gars yi mën ñu am parrain mais mën nañ dem élection am ñetti candidat d'accord man dama bëgg ñëpp na ñëpp am parrain. pour que candidat yi mën a bëri. parce que bu mais 200 yi moom ñoom ñëpp mënuñu. non non 200 yi a jàll. même bu xoolee fichier bi sax. Mm-hmm. mënul ëmb 200 yëpp. d'accord mais daf ci am communication boo xam ne bu jàllee ba ñëpp taxaw ci. mooy gars yi amuñu parrain. ñetti candidat nga fiy gis te ñetti candidat yooyu mun na doon candidat yi arrangé nguur gi. d'accord waaw comme li amoon deux mille dix-neuf. communication boobu pour man. Euh. mun na nekk erreur quelque part. ok son yi bu waaw jërëjëf ma jigéen am na solo euh, indeeti nga sujet bu ama am solo lépp jëm ci réew mi ak li koy doxal ak ak ñi koy doxal xam nga Abdourahmane Diouf ak Pape Djibril ñu ñu dégg ñu wax Omar wax na ko xëy na tudd ñu Pastef sax ku ci nekk da nga joxe sa xalaat mais ki ma ci gën a miin laay wax rek muy Pape Djibril ñun ñëpp ñu xam ko muy ndaw euh, te ma jàpp ni bu nee dafa bëgg senegal dafa bëgg senegal ndax fi la juddoo ndayam ne fi baayam ne fi mu liggéey fi li mu am lépp jàpp ni mi ngi ci réew mi kon am na droit bu amee yëg-yëgu bëgg a xemmem réew mi pour jël ko am na droit mu laaj ko comme fi ko Sénégal yëpp di laajee waaw ah, Pape nag euh, gis naa yu bëree bëri après man dina ma mën a may ma sukkandiku lii euh, xaw ma alaaji wala Baye Assane kan moo ko waxoon ci suba pour man su ma bokkoon ci ay conseil am dama naan ko dese nga lu bëree bëree bëri euh, su ma sukkandikoo ci li mu wax vidéo bi des na lu bëri pour mu xaaraat mënoon na am ñu mu àndal wala nu mu doxee pour mën a taxaw parce que man su ma àndoon yéen ñi ñu nekk ay naaw la ñuy xëccoo dara bu dee saa njóogu nee na Thiel bétti ni Thiel nga ni Thiel maak Omar bu ñu àndee di wax rek am na euh, néew doole gu am suñu biir. parce que ku am problème mu parrainage bay wax ni réew mi waram président Macky Sall na débloqué bu mu baare kenn mais itamit ñi bloqué seeni nit nañ leen bàyyi ñu parrainé kon mooy wane ni yow maanaam terrain bi occupé woo dara kon nag euh, loolu itam erreur de communication la boo xam ni. waaw blocage bi man damay sukkandiku rek ci li may dégg. Hmm. benn bi Pape Djibril wax na ko mooy wane ni. Euh, niti jàmbur la jàpp la yaakaar ay parrain ci ay niti jàmbur xaw ma nag ndax yu PDS la wala yu Macky Sall la wala yu usmaan Sonko beneen bet kenn ci ñoom laa dégg muy wax ni ñoom ñoo dem di parrainer di wut ay parrain ci Sénégalais yi koo xam ne réew mi la bokk bi di Idrissa Seck ñu ni leen bala ñu leen a parrainer da ngeen ñuy wax lu leer lu taxoon ngeen ànd ak président Macky Sall beneen bet ñu ni Ousmane Sonko mi nekk ci biir prison bi itam moo bloqué parrainage bi. maanaam moom la sénégal yi di xaar mu génn ñu mën a pare ñoom ñoo ko wax man waxuma ko léegi nag loolu bu amee man su ma sukkandikoo ci loolu damay jàpp ni kon ma jigéen am na euh, lu xew ndax doo gis Karim Wade muy kaas lii doo gis waa benn ñu koy kaas doo gis Sonko di ko kaas ñu koy kaas na kon man dama ci mën a sukkandiku ni pare sax pour dem ci ay élection dañuy ruube mu baal ma nag moom Pape Djibril Ndaw la Euh, avenir am na ko ci wàllu politique xam-xama may na ko bëgg réew mi may na ko jomam may na ko ak bu ñu xoolee avenir am ci li passé ci li nga xam ne noonu la doon analyser réew mi ak li nga xam ne doon doxee mais daal su ma sukkandikoo ci lii ma dégg ci ab vidéo wax ko mooy Pape moom pareegul waajagul euh, na euh, jéem a ànd ak ku pare mu doxal ba ci kanam parce que réew mi mën naa mujj ci loxoom wala bokk mën naa bokk ci ñi nga xam ne réew mi ëllëg ci seeni loxo lay mujj ku pareegul di nga toog di jooy yow tamit nag ba mu jaral la ngay jooy ah ajaratu. non ñu bari nga wàcc fekk pareegul <laughs> day waaj rek. mi ngi noonu mm-hmm. ajaratu. Mm-hmm. askan wi de dafa mel ni parrainage bi ampleur bu mu doon am ci élection yi ñu jàll cette fois-ci amut amut. waaw bu fekkee ni dañu wax sensité citer nommément Sonko ni moo bloqué parrainage kon dañ dem toogi euh, parce que nag euh, wax dëgg yàlla moom depuis combien de mois mi ngi ci terrain politique bi di wàcc di dem au fin fond du Sénégal di di di sensibiliser nit ñi wala boog di wut ay parti ay ay ay ay nitam euh, man pour man bu fekkee ni liggéey nga nga gëm li nga liggéey doo doo doo taxaw sax di jàmbat Euh, da ngay da ngay gën yokk sa liggéey yokk sa sa sa xarañte gën a dugg biir Sénégal wut ñu la pare ne man soo dee témoin du ma taxaw di ko wax man man man du ko wax gor gor du jàmbat gor du jàmbat danga soobu say nawle sóobu duggoo fenn ñun la ñun ñun waaw ñu dëgg parce que mënuñu benn bokk yaakaar Pastef taxawu ñoom am nañ ñu leen parrainé ci assemblée nationale. d'accord ñu bëgg a jël assemblée bëgg euh, waa mais ki ni parrainé wul boo wàccee ci terrain bi ka nga fay fekk nee na parrainé wul koy dóor pour mu pare parrainé la par force. non non non <laughs> ah mais on se dise la vérité ñi bëggul parrainé bëgguñu ne am na peut-être ñoo xamante ni dañuy xaar Sonko. am ñoo xamante ni keneen la ñu bëgg ne wala keneen ak keneen mais buñ la parrainé wul Sénégal rëy na nga wuti rek. lu yàlla may nga jël. Mhm. mais man gor daal du jàmbat. d'accord alaaji ban gis-gis nga am ci blocage bi am jamono ji ak nit ñi nit ñi toogee ne tekk mel ni dafa am lu ñuy déglu di ko xaar. waaw xam nga mbir mi moom mhm. li fi ne maanaam euh, sooy bu wax na léegi wax ju am solo ju pertinent mhm. euh, que ku wax rek maanaam yow amuy nit loolu lay firi. parce que loolu la de. Hmm. maanaam ku ne ñii nañ bàyyi rek yow moom amuy nit waaw parce que da dox ci terrain bi yëg mi yëf yi doxut nga yuuxu loolu la de da ngaa de gars yi dañuy wax ne ku njëkk a yuuxu <laughs> da ragal <laughs> donc loolu yuuxu la xam nga mbooloo mi ñaar yi mbooloo yi ñoo am senegal hmm. te it man ñaari kii yi ñoo am senegal muy système ak anti système. Mm-hmm. ñoo fi am ah. mais loolu moo fi ne. amul leneen léegi nag mbooloo système. Mm-hmm. ñi nga xam ne système mbooloo moomu nga xam ne ñooy militant yi mm-hmm. mën nañ laa parrainer waaye da ngay yor boo yoree ñu pare ne la. boo yoru boo yoru duñ la parrainer mooy mbooloo mi nga xam ne xaalis nga leen di jox ñu pare ne la ñooñ ñooy mbooloo système. mbooloo anti système nag dañ lay bëgg. yaa ngi dégg. waaw ah, am na mbooloo am na ñoo xamante ne bii. am na ñoo xam ne nguur rek la ñuy woteel. am na ñoo xam ne nguur rek lañuy ñuy woteel moom rek la ñuy àndal. am na ñoo xam ne loolu ñooñu nag. déedéet seen yoon ci ay gis-gis ak ay kii. Ah, ñoom lii du bu mu jóg nii muy doxee baax na. yëf yi nii muy demee gongo. élection bu ñëwee xam nga lan lañ ko tuddee maanaam dañ cee bëgg defarul tey mitin bu ne la ñuy dem mën nañoo dem ci mitin bu ne ni ñuy demee ci mitinu béti suba ñu dem ci mitinu kii euh, ma jigéen suba ñu dem ci mitinu kii maanaam campagne la bu ubbi ci ñoom noonu lañ mën a pare parrainer béti ne ma jigéen parrainer ki ay doublon donc la ñu ngay dajale mooy mbooloo système waaw waaw ñoom seen yoon ñoom dañuy encaisser rek ah man de ku ma ne signal ma signé man de ku ne ma signé ma signé man de man man ku ma ku ma jox junni ma signé de. mooy mbooloo système mbooloo moomu ñoo fi ne. mbooloo moomu nag boo yor duñ la signé parce que boo ñëwee dañuy xaar boo daje bu jigéen ña dajalee ba pare ñu ngi xaar mbootaay daal di xool boo ñëwee wax leen waxi kese loo fay ba boo fa bawut dara seen i carte nuñ koy bokk. boo fa bawee dara ñu daal di lay loolu. mooy mbooloo système mais ay ay daan war na tegu seen kaw ah. daan mooy daal préval nañ ko mettre. mais da ngay yàqal ki ngay signé ndax xaalis. loolu mooy mbooloo système. léegi nag ñu ñëw ci mbooloo anti système. mbooloo anti système. mooy mbooloo mi nga xam ni. gëmut bëti du du du parrainer bëti. yaa ngi dégg. Mm-hmm. béti mënut a jël bu jëleen xaalis di ko jox faalewu ko maanaam du ko pare pareneel gëmu ko mhm. yaa ngi moom ki mu gëm lay pare neel mhm. ñoom nag dañ leen a gëmut ñoom yoruñu te ñii gëmuñu leen loolu mooy seen problème maanaam ñi yuuxu dañoo yor ñi nga xam ne bi ñoom ngëm-ngëm la ñuy demee gëmuñu leen loolu moo tax ñu am jafe-jafe. Mm-hmm. mais xam nga am na ñoo xamante ne bi tay non am na ñoo xamante ne bi tey xam nga ñoom waruñu wóolu yuuxu naturellement. parce que am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi di parrainer <laughs> mais ñu ngi leen di parrainer parce que yor nañ doonte ñu ngi daj ay difficulté mm-hmm. mais ñu ngi leen di parrainer <laughs> parce que yor nañ. ñu ngi dajale ay mbootaay di am lu ñuy def mbootaay di parrainer mbootaay ay doublon dong nag la ñuy yóbbu. <laughs> bu leen bi béti jiitoo ju yàqu de mu jigéen bu ko béti jiitoo bu yàqu de parce que béti bu tegee ay kii ba pare mu jigéen ay doublon béti lay indi bu ko defee ñaa ko bii baaxul bii baaxul baaxul ki njëkk a ñëw mooy baax la <laughs> waaw moo tax njëkkante ba njëkkante rang ba di am mm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy euh, mbir bi xam nga lii lépp li ko indi xam nga mooy la xam nga lépp lan moo koy indi mooy la ñoom problème bi xam nga kañ la problème commencement bi yëpp dañ ñëwoon mbir mi du seen problème jàppoon nañ ni lépp problème Ousmane Sonko la. te xamuñ ni caxabal bañ dugal fële seen problème la ñoom. Mhm. yaa ngi dégg mais gisuñu ko woon léegi nag ku amul vision ndax mën ngaa yorum réew yow xamoo liy ñëw ci kanam lan la gouverner c'est prévoir. ñoom ba ñuy at def lii ca assemblée nationale di dugal xalifa yooyu ba noppi teg lii. Mhm. gisoon nañ ko dénoncé wuñ ko. Mhm. ñu noppi. ba tey mbir mi ne réel seen kaw ñu génn naan non lii c'est pas normal ba mu normalul du fii la normalul fële la normal fi mu toll booy yi dañuy réglé waat penc bi téye leen seen parrainage hmm. ndigal waaw waaw ñoom ñi ñu wax ni yëpp wax ji yëpp euh, soxla mais wax ji wax ji yëpp Pastef ko joxe ndigal li Sonko waa Pastef fa ko joxe waa Pastef li ñuy wax euh, du wax Ousmane Sonko la yaa ngi dégg ñoom loolu mooy difficulté yooyu lañ jonkonteel ci mbedd mi problème bi nag du Ousmane Sonko leen ko teg bañ koy voté ci assemblée nationale. Hmm. di wax yëf yi ni mu war a demee foofa la problème bi débarré. kon donc ginnaaw kaasuñu ko ba njëkk ci fii bu ko kenn jël di ko jëmale Ousmane Sonko Sonko ñi mu yore ay militants lañ yu ko gëm. Hmm. toog di ko xaar. am na ñoo xamante bi tey bu ñu gisut sax ku nekk ci Ousmane Sonko di pare bu ñu pare de. Hmm. xalaatuñu ko. donc loolu mooy li nga xamante ni mooy ne donc difficulté yaa ngoog allez-y mbëkkante leen. mbëkkante leen góorgóorlu mais man damay wax benn benn baatu olof boo xam ne bi gars yi waxee ba pare dama ci sama xel da cee dem maanaam coow la ca pindum teen ba. ñu amul baag ñoo ko waral. <laughs> mi ngi noonu ajaratu lii la jox leen dig daje suba ak jàmm incha allah. suba ak jàmm incha allah merci beaucoup ñu jaajëfal ma jigéen Diop Dieng Sala ñoo ànd ak partenaire yi dellusiwaat. gan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot bu gaaw te wóor kàppe la waaw waaw kàppe de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 seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Soaay bu jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asma bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex <laughs> jaajëfal nañu leen bu baax a baax waa régie yi jaajëfal également suñuy partenaire dooree ko ci KP KP di kalpe bi nu moomal suñu bopp te soxla yu bari nag mën na koo faj ah loolay dëgg KP fi gën moo fi man doomu réew mi moom ko ñuy wax sénégalais yi ni ngeen ko jàppoo nii la bëgg seenam réew bëgg seen doomi réew loolu mooy li nga xamante ni bii mooy dëgg KP ca kaw ca kanam sukkuraat macha allah ak ak euh, boutique solution mi ci garab yu baax yi boutique solution nag kenn dootu ko présenté mi ngi jàkkaarloo ak ri bu ko saa waxee ba pare dana fàttali numéro bi. ah wax dëgg fa yàlla du suñuy wax sax de sénégalais yi ci seen jëm bopp. Mm-hmm. ñoo ko dëggal wéral garab yi boutique solition mm-hmm. tappale gi bari woon na lool laataan solution waaye bi solution ñëwee ba nag ni réglé na mbir yi di fàttali numéro téléphone bi di 78. six cent euh, soixante dix huit quatre cent vingt six soixante six soixante dix sept quatre cent vingt six soixante six soixante numéro waaja laa bëggoon a joxe maa juum waaja mooy ndaamal ngattan déy na waar euh, Mbaye Daane ñu ngi lay nuyu sukkandee la fay Adja nuyu mbokk téléspectateurs nga xam ne rek ñu ngi saxoo di stan télévision mag bi lee mhm. mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix deuxième numéro la semaine ci seen bi lee mu di Taku Show ci Solution ci studio El Hadj Sidi Lamine samay sargal ñu ma fekk ci plateau bi ci kanamee rek ñu ñëw li nga xam ne moom moo di nappaat musical ci kanam tuuti lay doon nga yaatal ah ñu yaatal ci nappaat musical <laughs> bagage rek leen rek leen ay valeur victime du net may leen ñu jàmm ñu victime ba pare sooy bu loo indi tey non non su kaa faanaa la nag vraiment fu la fayda rek bu la jekkoo da koy def mu def ma koo def dem na ma haa hi ba nit ñi di ma woon ma haa hi mooy lan fu la fayda sooy bu maa baa ngi dem bul topp ñi waxal d'accord ah, ok Adja uh-huh. Euh, tey euh, sujet bi nga doon wax démb moom la ñu indi muy Garmi. man na Garmi laa xam ci moom nu mu tudd. Mamadou Mbaye Garmi. Mamadou Mbaye Garmi. boroom na biir borom xëy mbay. boroom wengal koppati moom la ñu indi. Garmi dañu toog ci weekend bi ba yàgg di collage ay photoom di ko booleeg ñu ne ba di ko booleek euh, ay nit ñu bizarre. Mhm. di wax ni Garmi dafa jaxasoo xale bu góor bu am fukki at ak lu teg. ñu bari daan ni lan la mën a nekkee man bi ma déggee jaxasoo sax maa ngi naan bu dee lu am la peut-être jigéen la wax ñu ni góor la bi loolu amee nag ndeke yoo mbir mi dafa am jaawale gu ci am dafa am ku génne xabaar bi am nu mu ko waxee ci ab organe tudd abressé ñu ne moom la waaye ci biir loolu comme def naa effort yu nekk pour bëggoon ko am moom Mamadou Mbaye Garmi bëggoon am itamit doomam parce que am na ñaari doomam ñu def sorti dañ ciy doyloo benn ci doomam yi après ñu déglu ko dellu si waat. Garmi di sa bàyyi lan nga mën a seede sa si Garmi. <laughs> suma papa day gor. Mhm. parce que du ngéwél. Mhm. amul kenn ku ci gën. Mhm. du juddu du jikko. Modou Mbaye Garmi rek dafa dafa dafa wundu lu bari. Garmi li muy wundu. moom la Sénégalais Sénégalais yu bari umpale. suma papa dafa di bokk si askan bu rëy askan bu yaatu. am benn référence muy Pape El Hadj Mansour sama maam. muy référence am. Pape Mansour kenn mësu koo dégg. wala kenn mësu koo gis. ci lenn loo xamante ne waroo ko fa gis wala nga dégg ko ci dara loo xamante ne waroo ko ci dégg mm-hmm. ma papa jël ko def ko référence mm-hmm. tey bu lii amee ci ci ci réew mi mm-hmm. metti na ma lool comme nu mu mettee ñëpp Maodo bi nga bi nga bi nga bi yeewoo rek daj information bi appel yi nga njëkk njëkk a daj lan la lañ la wax mbay bi ma yeewoo sama téléphone du ma fekk appel yu baree baree baree bëri mu ne waa mais lan moo xew soxna si ñëw na ma moo xanaa yëgoolu xew ma ne ko lan moo xew mën ne ma sit internet yi ñu ngi wax sa papa bi wala sa papa laa mhm. ma ne sama papa man ma ne naa dugg xool mbay bi ma duggee xool mhm. am naa lu ma metti waaye am naa lu ma neex mhm. li ma metti mooy xel yi ñu seen xel dem ci ci ci sama baay bi ba ñu tudd ko waaye li ma neex mooy bi ma duggee di liir commentaire yi kàddu yëpp nekk benn seede yi nekk benn El Hadj Amadou Mbaye Garmi ay tooñ ngeen ko de. du wax lu mhm. ñaaw. Mhm. mbay est-ce que xam sama papa du rendi xaru tabaski. Mhm. bu fekkee fu ñu koy rendi day jooy. voilà Adja kii mooy doomu Mamadou Mbaye Garmi mbir mi nag bi mu amee am na ay liveur ak ay tiktokeur yu bëri yoo xam ne itamit daanu nañ ci piège bi maanaam daal jiiñ ko li xew kenn rek lañ ci ma jël koo xam ni euh, muy Mola. moom jël na photo Garmi taf ko ni moom def na ci ay gëstu waaye mbir mi du moom ba wax ni sax moroomu. Euh, influenceur am yi ko waxoon nañu dem jéggalu xabaar bi parce que du mbay garmi mu mel ni nag lu doy waar la lu lu ñaaw la loo xam ne itamit dafay faral di am mais rawatina ci ku ñu xam ku siiw bu ñu moon sax diw jote naag diw xale bu ndaw la bu doon bu jigéen sax ñu ne waaw mais góor dafa doy waar ak fi jamono ji toll Omar tey lii lañu indi garmi la ñu euh, jaabaa jonge ci weekend bi jiiñ ko ab xale bu mu sàkk bu góor ndeke dañoo jaawat li tur yi waaw euh, garmi di ko masawu bu baax a baax El Hadji Mamadou Mbaye Garmi euh, lu tax ñu koy masawu dafa metti mm-hmm. nga jékki-jékki toog mu leer ni defoo yëgoo jékki ak information di daw te fu yow yow egg du man du man egg fa nga yoon njaboot doon kilifa ñu xam la ci réew mi man nag suñu borom suturaal ma ci bi mu ko yëgee ki mu ko njëkk wax dama na ko du dëgg boobu xaw ci dara de bonne foi rek laa doon waxee aw ma non mbedd mi rek koo xam ne day li man ko no du dëgg mënu ma lu tax man ko no man Garmi du nit ku may fréquenté di dem leen te moom dikk mais xam naa ko à travers les médias mais xam naa ko ci ay jotaay yu ñu doon daje jugement boobu rek laa amoon ci moom mooy njort bu rafet ne lii du dëgg léegi nag ñi def euh, mbir mi loolu moom manque de professionnalisme wala tooñ doo xam noo koy tuddee li ñu def Garmi parce que dafa am lu ñuy wax ci média mooy initial maanaam média bu dara dalee ci kenn dañuy junj pour respecter la présomption d'innocence ngeen di junj te jonju leen non non dañ war di jonj te bàyyi junj xam ne tey jii bu mbir dalee ba egg ci yoon hmm. léegi boo koy traité da ngay junj maanaam bu ne Omar Gueye nga def ogé wala nga def OG bi wala nga def OG OG mun na doon Ousmane Gueye mun na doon Ousseynou Gueye mun na doon léegi nag yow lan moo lay yóbbu ci yóbbu ko ci turu Omar Gueye loolu nag mooy siw di jàmmi borom hmm. maanaam siw gi mu siw mais foofu waroon nañ tey dal même sax bu doon ni Garmi lañ ciy tudd mhm. mais ñu respecter la présomption d'innocence parce que lu ñu jiiñ nit la rek tudd ko ko kon yow jarul yow nga ciy indi leeral parce que ki ko binde moom dafa joxe ay initial mais yow lan moo lu yóbbu sa xel mhm. ak si sa wax loolu mun mënta weddi mënta weesu yabaate loolu de li moo laa wax dañoo waroon génn jéggalu ko mhm. parce que lu tax mu amoon jot bi mooy Garmi am na ay jotaay yoo xam ne bi muy ànd xaay géey waaw ñu doon daje Tiwaawan mais Garmi ko waaw ku taabul ku bëgg nit da nga daan def mos naa dajeeg moom ci benn jotaay benn kilifa doon amal boobu dafa tardé ñëw bi mu ñëwee pour walla ni ku yaru la dalal loxo yow mais ñëwul dugg ci biir jotaay peut-être peut-être turam mayoon na ko mu ñëw xuus di jéem a toog ci kanam walla muy kii mais man maa jug sax na ko kaay toog. Mm-hmm. mu toog man ko noonu sa santé dafa rafet yow waroo taxaw ci jotaay bi yow da nga war a jël place nga toog ak genre émission yi muy def garmi ci ay valeur rek lay dox xoolal làmb ji. bi mu demee ba benn jamono dafa jël recul ci làmb ji gisoo ko gisatoo ko ci lu dul ci wetu Youssou Ndour wala ci liggéeyam teg ci nga xam sëram boo xam ne dama mës a toog ak moom mu wax ma ci seen famille. mooy Ngoy Mbay mhm. te mu dëkk Nations Unies fii. wax ma ci seen famille ak ni leen seen waajur yare loolu tax ma amoon njort ci ni Mamadou Mbay Garmi mi may dégg xam ne musuma mhm. ko dégg mu wax lu ñaaw ci média. Mhm. du du mooy dugg ci ñàkk fayda yooyu loolu tax ñu ko def tooñ nañ ko mais aussi nañ ko jéggalu beneen yoon aussi ñu tey. buñ gisee bu buñ dégg teel rek ni damm na. d'accord loolu moom. Euh, Omar wax na ko ñoom journaliste est-ce que du léeg-léeg ñoom la des nga déglu revue de revue de presse yi. Ah, non comme ci li nga wax rek des fois ngeen def revue de presse daal di junj ab xabaar boo xam ne ci nit la jar moo tax euh, mën na dal ci ku siiw noo gisee mbir yi mbay na biir. waaw vraiment man bi nga <laughs> xam nga dafa am yoo xam ni euh, son yi bu bu dee lu ñaaw la. Hmm. doo ko xool doo ko gis. waaw xam nga am na yoo xam ne dafa am na ñoo xam ne am bëtu garmi am nopp garmi te garmi garmi la garmi gararal mhm. man nag di wax dëgg yàlla am na yoo xam ne du ma ci wax du ma ah, xabaar bi kon déglu woo gis naa ko mais intéressé wu ma ah, xam nga ndax lan mu intéressé wu ma lu lu loo dul loo dul loo dul étiqueté sa papa waaw doo ko étiqueté papa jàmbur vraiment loo xam ne sa papa buñ ko ko waxoon tey mu metti mu metti ko mhm. mu metti la trop mhm. wala mu metti ñi nga xam ne entourage na wala ay sœur ma nga kii war a ko étiqueté bàyyi jàmbur te euh, garmi dafa am ay doom am ay soxna am ay raq kon donc ñu jël rek daan ni euh, GM. Mhm. ñu ne garmi la pour lan loolu man su ma doon man garmi ci boppam man dama lay ñaan dama nga porte de porte ji plainte ankay gis nga nit bu la defee neen nii nga ne de jaru ko jaru ko jaru ko bu topp bu kiiwaatee mu defaat la ko te ki ko def nit noonam la parce que xool ba mu neex la nga ni garmi ak ñi ni nit ñi bare Gabriel a ngi fi nga kiiwal leneen a ngi ci leneen a ngi fi leneen dafa am yu bari yoo xam mu ngi fi ay tur yu bari mais nga am lu nga nga seppi kala ca neex daal ne di euh, kii bu kii la nekk TFM la nekk nga ni gar mi pour lan suñu ko teg non non non déedéet rafetul dafa rafetul dafa ñaaw loo dul étiqueté say papa mhm. ak sa waa ak say rakk ak sa yaay ak sa lépp war a ko étiqueté bàyyi jàmbur vraiment man loolu laa koy gisee d'accord Adja yaa ma ko doon wax léegi naan ma sax démb man la dinaa ko indi tey euh, mu mel ni daal lu dooy waar la nag def naa victime yi passé ci mois yi moom moo ci gën a mettile waaw xam nga ñu ngi koy massawu Garmi El Hadj Mamadou mbay xam nga tey jii euh, son yi mhm. man su ma toogee sama kër wala ma nekk sama néeg ñu wax ma ci yéen ñii ma bokkal plateau bi mhm. xam naa la ma cay gëm ak la ma ca du gëm comprendre na mhm. muy ci ba saa ci sukaam yi yéen ñëpp lu ma wax lu ma dégg ci yéen rek xam naa la ma ca war a gëm ak la ma ca warul gëm ndax lan yéen ñi ñëpp saa laa ci gën a yàggal xam naa li may gëm ci moom ak li ma dul gëm ni ma la xamee yow ak saa njóogu mi noonu laa xamee Mamadou Mbaye gar mi ñoo nekkandoo woon oxygène man oxygène 99 laa fa laa fa laa fa dugg mhm. dafa ubbi tuuti rek ma dem fa mhm. gar mi Lamine ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm mhm. ak dogo ak ñoom Pamba sa astu sow ak ñoom Pambaax Mbaye ñoom ñëpp dama leen a pratiquer Mm-hmm. man presse bi quatre vingt pour cent dama leen a pratiquer oxygène. am na ñoo xam ni seen salaire sama loxo la doon jaar. donc am na loo xamante ni dama ko woo téléphone. Mm-hmm. ni ko bëgguma la sax déranger parce que man xam naa la may gëm ci yow ak li ma dul gëm ci yow. Mm-hmm. mais nag dafa metti nit ki am ay mbokk am doom. am soxna da bokk ci dëkk bi gar nga bëgg ko nga bañ ko c'est un quelqu'un ci biir Sénégal. Sénégal nag moo demee noonu. bala ñuy weddi wala bala nit ñi di xam fekk la mal est déjà fait parce que week bi TikTok bi boo ubbee moom la ñuy taf foo ubbi moom la ñuy taf mm-hmm. euh, te man kin ki nuy wax nii man xam naa ko kin ki vrai kin ko jiiñ présumé bi ah, kin jiiñ affaire xam naa ko moom ci organe la nekk parce que nit ñi ñoo teeyul mais ki bind wax na ba ni oxygène la nekk waaye ah. pourquoi ñu jël bàyyi jàmbur di ko ko. Ah, di ko ko tapale deful faute kon ñiy reprendre. ñoo nit ñi la am na benn animateur bu ma gis dégg gis naa ko sax mu génn di di di di corrigé waat naan man bi may wax tudduma tur waxuma dara ay initial laa joxe affaire yooyu noonu. gis nga lu bon doo ci xuus. Mm-hmm. doo ci xuus te Sénégal nag il est temps que man ma doon gar mi mm-hmm. damay dem porté ji plainte parce que dëkk bi dafa am yoon. dafa am yoon. d'accord waaw ñu koy masawaat bu baax a baax. d'accord. alaaji euh, mi ngi noonu de kon bëti sax man ci moom laa yëgee loolu kon ni ki ñuy wax mi ngi oxygène moom la ñu bind léegi ñu jël mbir mi moomale ko gar mi hmm. yoon ah. waa euh, wax dëgg fa yàlla mbir la moo xam ni yàlla <laughs> euh, mbir mu mbir la moo xamante ni mhm, lépp bonut boo seetee lépp bonut mooy c'est que du lépp bon ci biir mi Euh, waaw mbir mi c'est que bon parents euh, sunu suñu borom nu ne lay ñëwee. Ah. ak tamit euh, ay mbiram. xam tey ñu ngi toog di wax ci garmi mm-hmm. ñu ngi wax ci ay qualité garmi waaw façon nit bi mu doon mais loolu il faut que. ak mbon teew ñu toxal ko mbon pour nit ñi mën a wax ak mbaaxam ci dundam parce que da wax rek mbaaxu nit ñi mais nit ñi mosuñu wax ak mbaaxam moom Garmi du dëgg est-ce que comprendre donc buñ ko waxalutoon peut-être lii li muy dégg tey du ko dégg parce que tey peut-être Omar am na lu mu xam ci moom loo xamante ni occasion bu mu mën a am pour wax ko lu mel nii rek moo mën a xew pour mu mën a wax kan mooy gan béti am na lu mu xam ci moom loo xamante ni lu mel ni ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que ni mu nekkee woon ci vitrine yi noonu lay continuer waat tamit ba tey di nekk ci vitrine nit ñi di découvrir kii mooy kan léegi nag pour nga mën a yéegee benn maxaama bi faaw nga am yenn yoo xam ni. loolu jaar mën nga ci jaar xam nga li am solo mooy lan. mooy que ni yow ci sa bopp moom ci boppam ak ñi ko xam yëg nañ ni lii moom dañ ko koy waxal waaye du moom te moom it xam na ni du moom. lépp day leeraat rek waaw ña waxoon di wëlbatiku di tuub di jéggulu ñii di kii ñooyu yëpp di continuer di am pareen yooyu azaka la joo xam ne day génn ci euh, ci nit waaw donc loolu mooy li nga xamante ne bi noonu la ko noonu la ko noonu jàpp naa ne noonu la ko jëlee parce que gar mi bon am na koo xam ne bu doon moom la tëb na bu yàgg wax mais déggoo ko mu wax déggoo ko mu def la ah? tey lay soog a wax na wax na tey. waaw Assane Gueye moo ko invité. non dañu ne yi rek nañ moytu réseaux sociaux. waaw sax lu ñaaw. moom lu muy wax tey daa warul woon a ñëw fii ma invité ko lu muy wax tey. moom fii laa ko woo rek lu muy wax. lu muy wax. waaw loolu baax lu muy wax parce que. non non lu muy wax. parce que saa tey du saa wax la wax de ndax da koo teg lépp ci cadre suñu borom. suñu borom mais daa waroon a ñëw toog fii rek El Hadj wax ak moom woo ko téléphone mm. El Hadj Assane mi koy di ko war di ko laaj muy tontu. <laughs> Mm, mu wax comme ni ko sa ni saa waxee. parce que nee lépp suñu cadre suñu borom la. waaw loolu la loolu la wax. Mm. c'est saa yi pareen saa yi nit dina war a yegg fenn mais faw mu traversé yenn yi. yooyu muy traversé nag euh, dool danga koy jëlee ak philosophie rek xam ne lii dafa bokk ci yoon bi mais pour non metti na trop metti na ci <laughs> metti na ci njaboot metti na ci yëpp waaye mais moom xam naa ni attan na mbir bi parce que xam na ni defut dara xam nga ku defut dara nit ñi ñooy kii mais du lay wóor yow saa dangaa wax ak gar mi nee na ah. comme li nga wax nii ah. nee na lu nee na lu teg nga tegu ko daa fekk nga ko lii la wax ah. attan na ko attan na ko c'est loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo quoi te it gar mi nag wax dëgg fa yàlla fi mu nii ñun duñu sa géwél et puis lay waxal ay wax yu neex <laughs> ñu ngi koy waxal wax yu eh, neex di ko waxal wax yoo xam ne moo ñu ko waroon a waxal d'accord mais xam nga situation bi moo tax ñuy wax ci na ko biralaat nga wax rek yow eh, foog nga mbalak ko fa tooñ ko kii ak ngi tudd mbaxaneem bu muy indi fii loo ràbb def ci bërëb mais sooy bu je te jure nit ku bari valeur la nit ku bari valeur la man du ma wax ci ma mm-hmm. xamul man bu ñuy wax ci nit xaw ma ko damay mm-hmm. noppi mais nit ku bari valeur la mm-hmm. mais dimanche affaire baa ngi tàng jër mm. non wax affaire baa ngi tàng jër mm. Lamine teg ko mu naan ay mbay na biir nan nii mbaxana <laughs> <laughs> xam nga tey bu doon moom bu doon keneen. bu a xam ne kii dara sabu ko daal. non yow garab yi léegi neexatul sax nit ku baax nit ku bari valeur. non dafa bari valeur bu bari valeur mm, sant yàlla vraiment mais li mu ci war a jàngee rek mooy ñi ko sopp ci réew mi. bari na ma loolu jàngal naa ko maanaam ñi ko sopp. voilà parce que doomam boo déggee doomam loolu la la wax nee na la bi mu duggee ci commentaire yi. Mm, xam na li baayam liggéey ci réew mi mm. te loolu yëpp faaw lii amoon pour loolu. doom ji mën a xam. fii papaam fi ñu ko teg. ñun kañ la moo xam voilà waaw xam nga bu gar mi moom lii bu amutoon. dootul ko soog hmm. waaw donc nag euh, ñi ngi ñi ngi delluwaat di wax li joxe conseil bi mu joxe aussi tamit conseil xam nga hmm. Mollah tamit li nga wax ne moom la def noonu waa hmm. loolu c'est bien xam nga lu tax parents yi nit bu dee yow waxal nga nit même bu fekkee ne da ngaa juum. Mhm. mais aussi tam mën nga am honnêteté tamit. daal di jékkulu mhm. parce que loolu lu am solo xam nga moo laa lu mel ni bon mën du ko dal gëm naa ni du ko dalati du ko du ko du ko du ko dal parce que li tax du ko dal. maanaam xam nga moo juumoon na fi ci ab photo boo xamante ni bii tey mu jëloon ko parce que boobu dañ ko dañ ko dafa jaar ci loolu moo tax pareen saa jaar ci dara jàng ci mhm, comprendre nga jàng ci moo lay wan ne la lii mu def ni te moom it bi mu ko defee it juumee amoon na honnêteté taxaw jàkkaarlook sénégalais yi mm. baalu comprendre donc ni mu ko defee ñi waxoon ci gar mi naka sudut noonu man jàpp naa ni loolu du rëy du dara grandeur la mm-hmm. nga taxawaat jéggulu sa bopp parce que mën nga jéggulu lu mi toog fi mu toog déggaat la daal ne jéggal naa la bu mm-hmm. baax sunu borom mais boo ko defut jéggalu la ko mm-hmm. te loolu da lay topp ba da lay topp donc ñi ngi leen di wax ne bon ñu kii te tamit boo lépp lu jógati ci xibaar ñu ànd ci ak dal am na ñoo xam ne sax euh, groupe bi mu nekk lañu koy mere rek loolu moo tax waaw groupe bi lañ koy mere waaw dañ ko wax na ko léegi ba bi mu expliqué ba ne boobu c'est parce que TFM la ne waaw groupe bi la ba nga xam ne loolu mooy te des fois nag wax dëgg yàlla groupe maanaam groupe bi group la waaw groupe bi groupe la ña fa nekk ña fa nekk la xam nga tey des fois kër gi ñu nekk mm. ñu moomale ko ab nit te mhm. pourtant des fois ngis ku fi nekk koo xam ne àndul ak nit kooku dëgg la vraiment mhm. da ngay taxaw àndul ak nit kooku loo wax bu génne mu la tegoo ko fen diw nangam diw nangam te pourtant dañuy kër gii diw lay liggéeyal mhm. kër ga gëla di TFM des fois nga dem fa koo xam ni àndul ak moom ka ñuy wax naan moom la borom kër ga di liggéeyal kooku àndul ak kooku c'est-à-dire loolu nag da ñu bàyyi ja xam ne ay nit yu am valeur la fa mais gar mi dafa war a jàngal ñu bari surtout ñi am tur ñu defar seen jikko ba bu dara ne teel seen kaw rek ñu ma leen a miimal xaw man du ku may dugganteel wala koo xam ne doonoo seq dara mais la fekk ndir wax ma rek ma ne ko garab mi mi may gis wala ma koy dégg nii yu ñàkk fayda du loolu laa ko mu ni ma noonu man ko ba fii ak ngoon wax ji dina am lu ko weddi parce que loolu tax nit defar gis nga dafa am nit ñoo xam ne fii Dakar ay nitu valeur lañ mm-hmm. surtout gal mi mi ngi xool ci koo xam ne muy Alaaji Mansour Mbaye lu baax rek lay wax du wax mukk lu bon yaa ngi gis dafa am loo xam ne ay nitu valeur lañu gis nga kii di bar garmi kii di Elaaji Bekaay Mbaye noonu la mënee wax lu baax moom it parce que dama ko côtoyé xam ko. béykat jottali bi. ay yàlla dafa mën nga génn ci <laughs> jottali. <laughs> siiw daal du jàmmi borom. siiw siiw moo dul jàmmi borom. mais nag Aya. parce que man su ma ko dee xelal. Mhm. bu mu porté plainte. Ah. Ah, bu mu ci génnaat di toog. Ah, non non non non non non Aya Aya. saa grand bi génn war ko porté plainte. non bu mu porté plainte. na bàyyi noonu. am na loo xam ne la ma waxoon Oustaz Souleymane Diaw Talaji rek ngelaw la luy romb mm. te itamit ki ko def ah, Sénégal yëpp toog nañ weddil ko waaw bu mu ci bu mu ci doon ñun toog nañ fii di def émission sa sa njóogu mi joxee xalaatam ci ci ci ci ab nit mm-hmm. ñu toog taxé ñu lu nekk ba moom ñu taxé ma borom ñaari tur taxé man nag man mbir mi li ma ci gën a metti yow xam nga saalum def après daan ni plateau mbir mi bu leen ci àdd ba nii kenn waxu ci waaw des fois loolu day am day gën a day gën a naqari rek sama kër gee ni fa laa dalee baa ci mhm. Mhm. di fa kii waaw loolu dëgg la loolu dëgg la du ma neex leeral ko loolu dëgg la du lu ma neex ma dara dara laa dul leeral tur <laughs> ba ma ci dégg moo ma Omar yow fa nga nekkoon ma sañoon lu eh, leeral leen lu ñaaw du fa du fa du fa jógee parce que aw ma lu ëpp oxygène déglu man aw ma lu ëpp oxygène ci presse ak Walfadjri gi parce que oxygène laa dale baax donc bu ma sañoon dara dara dara lu koy tàcc euh, sama yoon duma la ko wax sama yoon nekk ci tëjal waa tëjal tëjal animateur la wala journaliste xaw ma ci dara tëjal ok oxygène man kilifa yi ko jiite moom ña fa ne xaw xaw ma leen tëjal man de boo sax doo ko ko wax. man oxygène moom kenn laa fa xam te mosuma koo gis muy. El Bachir oxygène samay. El Bachir daa mel ni Raay bi FM. ñoom Fama Raak Roqe Ndiol nag ñoom ñëpp ay ca tëjal. kon mi ngi noonu mbay na biir na biir a biir a biir. <laughs> Euh, mbaykaar bi lii rek ab bor la. amul bor dara da nga liggéey liggéey bàyyi jàmm waaw déglu rek ñun waruñoo toog fii di ko waxal damay tëj waruñoo toog fii toog fii di ko waxal lenn damaa bëgg bu toogee fële na biir bi biirul dara <laughs> mbët yéen <laughs> ah, biru dara baa jaagoor kon ba la ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen eh, jaajëfal eh, soxy bu li nga indi moom tey sama xol bi sedd na ci lool waaye ndax li ma ci bëggoon a wax wax naa ko ci donc ñu ngi lay jaajëfal ay ci ñu jël neppaan musical ñëw euh, <laughs> très bien àdduna loo gis kan ak kan nga am àdduna loo gis teraanga la lu lu xewati dafa am yoo xam ne des fois nit da lay jàpp ci poñ. waaw doo ma wax say gan. mënoo maa eh, parce que man maa man maa laaj. sax eh, dana laaj man maa laaj. te nee naa la yow mënoo maa jàpp ci poñ bàyyi yow temps bi danaa la sànq tey. dégg <laughs> waaye ñu ngi may waaye sànq bi nga may sànq ñoom ñu ngi may jox dafa maa neex ndax ñi ñi ma jël ñi nga jël ñëpp tey ñooñu ñooy samay def ba def te neex nan mbay Mbaye ak Maître El Hadj Diouf ku toog euh, Mbaye Ndiaye kon mi ngi noonu sax mbay nuyu na la Ndiaye Eh, maa ngi lay fay maa ngi nuyu senegal di nuyu. te boo ma naree sànq di nga xam ne lépp dëgg la. di nuyu l'homme de parcelle Amadou Ba boroom parcelle moo ko moom maa tey ma ne Amadou. ah yow nga nekkoon cinq bu personnes yoo xam ne da ngeen a waxoon ni du ngeen jàppale Amadou Ba. Amadou mooy mooy mooy <laughs> borom. yéen li ngeen def lépp. mooy borom parcelle parcelle Amadou lañ bugg. moom laa dee déet man man man ku Amadou àndal moom laa àndal def seen stade bi moom pour la Amadou dina ko ñaaw na de yow mooy yow doo toog yow kii nga xam ne àndut ak Amadou Ba Amadou ca kaw yow dan ñëw sax avant ñoo wax ci mbirum Amadou Ba hmm. ñoom seen bagage noo gisee Ousmane Sonko mi ñu tere mi ñu ah de de mi ñu génn mi ñu ay mooy laaj laaj saa sarax réforme euh, déedéet Omar de ko briefé ana kaye kaye bi tey bi tey duma intellectuel laa léegi léegi léegi xam nga euh, ñàkk indi fooy sax moom moo ma arrangé voilà léegi nag dañuy ñëw même avant ñoo dem sax ci Ousmane Sonko nag ñu ñëw ci ki nga xam ne rek moom moo di ah, waaw ñu dem ci Amadou Ba nag mi nga xam ne da ngeen a nekkoon cinq personnes. Amadou Ba mooy des. Amadou déglu ma Amadou pare àndoo ci ah jërëjëf wala bu ma bu ma sànq yow tamit nag bu ma sacrifié parce que yow. déedéet bu ma sacrifié parce que sacrifié wu ma sama bopp déedéet sa sacrifié wu ma sama bopp. dañuy man dootuma yor na yoratul fooy internet ah, parce que kii ba. Euh, parce que déedéet xam nga dañoo waxtaan ma moom ma wax ko man ah, maa ko wax. waxtaan ak yow nga waxtaan ak yow. mais wax naa la ni ma jël kon da ngay dindi ngañ yi ngàññeel waaye dama ni la ah, dama ni la kii laa man la damay dugg ci ki ne rek moo di mbirum Sonko ah, maa ngi koy laaj de na def naa ko rek bul la laajal sa naa ko awa oh, dimbali ko bi du question tey. question dem la woon léegi na dem parcelle. moom ngeen tàngal tey la woon ci mbirum Sonko laa ko ko doon laaj. lan waaye léegi invité bi moo lay wax li ngay. déedéet man maa ko wax. kan moo ñëwoon dem. kan. dem ko dem fàtte naa ko. <laughs> xam nga neexut a jàppale. man léegi xanaa du ma ne la laaj ma kon kañ ma jóg toog foofu laaj sama bopp daal di ñëw toogaa fii daal di tontu. boo nekkee foofu dangaa war di laaj may tontu. waaw mais mais Mbaye yow it nag baal yi ngay def yéen ni nga ko piégé nii nag. amoon ah, man amul ma te question. xamatu ko. xam naa ko. laaj ci mbirum Ousmane Sonko la. loo ci laaj dama loo ko. <laughs> Sonko bi la. saa bàyyi léegi saa waxatuma. Eh, léegi bu dee duma non non nekkatuma échappatoire parce que xam naa. yaa ngi yaa ngi juge juge juge Samba Soba si la la la. Saba si Saba si Faye Saba si Faye laa invité moom mi nga xam ne moom moo plaidel si Sonko ba mu ne dafay kii loolu laa ko laajal juge bi moo wax loolu léegi donc waa dama ne ko noo bëgg dama ko bëggoon laaj loolu noo gisee kàddu juge bi nga xam ne mooy Saba si ni mu defee ci mbirum Sonko mu ni ma voilà kon nag ma ñëw di la déglu mu ni ma bi mu nee ma dama lay lor laa laa def jaxal xam naa yëpp xam nga Saba ah. si aussi jàng na waaye jang bi fak droit bi dafa am yoo xam ni def ko avant mu koy ki dañ koo tebaloon kalaas moo tax eh, fi mu nekkoon ci keroog ci ate bi mu am loo xam ni def ko jàngatut eh, xamut nuñ koy atee moom sabasi parce que les lois de Dakar parce que démb sax bi mu ñëwee dafa tëb dafa tëb waa mêmes lois eh, exécutives mm-hmm. waaw parce que bu dee da ngay juger koo xam ni dafa dëkk dakaar mm-hmm. ku dëkk dakaar ak ku dëkk Casamance boo leen di juger jugement yi war ta bokk mm-hmm. <laughs> xam nga yaade ah, bu luwaa yi bokkul foofu kee Casaase la kii Dakar Dakar Casamance luy seen palaano seen maal kaldu Dakar <laughs> loolu moo tax ate ate luwaa bi ci ceeb bi la dellu noonu lañ ko xoole noonu lañ ko xoole kon yow noonu lañ ko luwaa Dakar moo tax Sabasi dafa ate Ousmane Sonko ci luwaa Casamance te Sonko Dakar la dëkk ah. <laughs> wuute am na. li nga waxoon ci Pape Ngagne bañ la. déedéet ma ne wuute am na. waaw ndax kaldu la bu fekkee ne. lu waa kaldu. Ah, ak lu waa ceebu lu waa kaldu ak lu waa ceebu jën bokkul. léegi lan moo leen wut lan moo leen. wutale li leen wutale bokkuñu bokkuñ bokkuñ bokkuñ. Ah. bokkuñ moo tax moo tax article yi niñ ko waxee. Ah. saba si loolu la maîtriser wul. saba si dafa ñëw am kay bàyyi ko mu wax waaw. ci li nga xam ne parce que Ousmane Sonko. Mhm. fii Ousmane la. tudd bu dee Casamance bu demee Casamance Sonko Ousmane la. ci luwaay bokkul bokkul moo tax bi nga xamante ni bi. Mhm. agent de judiciaire de l'état bi daal di koy wax ne ko amoo compétence amul compétence. parce que dégg naa sax euh, euh, fi mu ne tey ndax li tax amul compétence pour atte ko. waaw mooy Ousmane boo ko gisee bu nekkee Casamance gis nga ko cap bi muy sol. bu nekkee fii ak ni muy fii garaam bu bu. bokkul euh, Ousmane ñaari ñii Ousmane la. ah kon kii sonk la kii Ousmane sonk la fii Ousmane Sonko la fii sonk Ousmane. boo gisee Ousmane Casamance day ñangal Ousmane fii day ree hmm. kon lu waaye bokkut niñ ko ate baaxut. kon dañ koy defaraat kon waaw parce que nag démb maa ngi tey de ñu ngi dégluwaat journal ñu ne wax ni euh, ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci kii bi dañoo war a porter plainte pour defaat loolu. <laughs> Macky Sall caggal nañu ay ba ñëwal yow ma caggal waay. <laughs> mbay loolu waroo koo naqasaal de. dama ndax da ngaa jàng loi. droit mokkal nañ ñun ñëpp. Ismaïla Madior moo ñu formé Ismaïla ñu forme waaye bi mu ñuy formé après Madior bi mu ñëwee nee na lii baaxul waaye dañ ñu ko Ismaïla ñu ko wax ah Ismaïla ak Madior ñoo ñu doon jàngal ñëwal ci laaj yi. jërëjëf. mën ngaa dem jeex na lii gàtt na di lii émission la sa nawle day ale jërëjëf nuyu ñuy nuyu Mouhamed nee na benn frère am bu naan Jibel gay dafa dafa réer dëpp fa nga dëpp bu ñu jógee ci màggal gi tudd jibeel nee na dafa réer bi mu demee Touba ba tey ñëwagul fële ca Kaffrine donc yàlla na ko yàlla nit yàlla mi nit nag yàlla ko nit ba mu leer nañ ne donc ñun El Hadj Diouf Maître El Hadj Diouf nuyu nan la ah, yow nga këpp merci. Hmm? ñu ngi nuyu ñëpp laax bi ak sonkorisation bi ñu nekkee. oui oui euh, maa ngi wut parrainage parce que. ñaata nga amag ñaata nga amagul bari na macha allah li ñu parrainé. Mhm. dugg nañ ci raison yi euh, macha allah li ñu jot. parrainage Sonko Sonko nam nan la. Ah. yow yaa koy woowee boobu dama yi jaar loolaa bëgg a expliquer. yow fan nga jaar voilà booy bëgg a xam. fu mu ne mhm. je dis le ñi nga xamante ne am nañ parrainage du député nañ ci yem. Ah. qualifié nañ d'office. ah kon dafa am ñoo xam ne day def parrainage député. def parrainage député ñooñu nañ qualifié mhm. ñeneen ñi ñu wuti ko parce que loolu mooy dëgg. Mhm. parce que la loi c'est comme ça. parce que am lii ba noppi bëgg a xañ ñeneen ñi man du man booy laay waxal ñoom Pape Djibril ak ñoom. ñooñu laay waxal parce que man am parrainage defuma problème parce que maa ngi wër maa ngi am mais gars yi amuñu man maa ngi am waaye gars yi amul ndax lan gars yi ñoom ñoo amul yow waaye am nga yow ñaata nga amagul man maa ngi am yow ñaata nga am man macha allah matal naa daanaka matal naa ñaata matal naa daanaka pour gars yi bu ma ñëwee ñu xam ne daanaka googu laay yeggale mais matal naa daanaka <laughs> leer am nga million donc di wax ni. am nga million te may parrainé. en tant que maître El Hadj Diouf million parrainage yooyu. ñaata la ñuy laaj affaire yi mu naan million. mais dama lay laaj est-ce que yow am nga. Ah, mais yow est-ce que am nga sax yow. amoo dara ah, am na. amoo dara yow la ak sa yow la. waaw ah, Cheikh Fall laaj ko waaw Cheikh Fall. Cheikh mooy coordinateur parrainé. parrainé ñun ñu ngi am wane taw c'est pas sama wax El Hadj ma gis ne def ci internet bi. ah muy lan. naan ay ku ma bëggul voté yaa xam man forcé wu ma kenn. mais mais man man dama ne ku ma votéel. votéel nga ma ku ma votéel yaa xam loolu kay maa ko wax. loolu waroo ko wax parce que da ñëpp man dama bëgg nit ñi jub. ñi nga xam duñu taal parce que man su ma nekkee président sama programme nii la demee ku taal ma taal. ku toj nga toj. moom kay yamul foofu man de bëgg naa ko laaj. laaj ko waaw maître maa ma. Euh, waaw damaa déggaat ci ay xabaar ñu ni sa ndaw sa doon bëgg a taal boppam. kooka. aji sa aji. après ko def waaw nga naan ma sa waaw waaw

wala nga bëgg a lakk li nga xam ne moom la wax eh, bien détail. waaw léegi taal ma taal. ku toj nga ku toj ma toj. waaw léegi yow en tant que avocat. yow ah. avocat nga juge saba si ni mu ni mu defee loi bi noonu noonu noonu la. du non ah très bien. yow yow de Mbaye Mbaye Ndiaye jàngul. déedéet Mbaye Ndiaye jàngul. de lier Mbaye Ndiaye jàngul droit. yow droit nga jàng. yow Me El Hadj Diouf Me El Hadj Diouf xaaral.

ay yaay moom li muy wax lépp <laughs> comme moom day xuloo ay li muy wax lépp caméraman bi jëlu ko de. maanaam élage nag élage nag élage caméraman bi sukkandee daanaan la de. Mm. parce que ah, ci dossier bi nii gars yi jëluñu la comme avocat te yow dossier boo mës a song waa moo tax ñu pet man man ak Adji Sarr maa daan. waaw mbay ñaa maa daan. bii ñu may yeeman minimiser. ñu dem ñu daal nañ ma waat ma ñëw sauvé maay Messi. équipe eh, bi bu gañe. yow artiste nga nag. <laughs> Sonko man doo nga mën ci moom dara bu doon man day jàll. mais man hmm, bu ma ñëwee. waaw ba teg affaire yi génne sew sew yi yu sew yi. wëndeelu ak sama robe avocat jaa jaagar yi dox góos dem <laughs> droit arrière daw yeeg tëb ci wetu juge bi dëgg ci taar bi. wàccaat ne ko loo wax ñu ne ma gongo li nga ay ma taqee jaajëf ñu ngi nuyu ngaaka beleen de ngaaka ci ko def yow xam ngaaka ngaaka da ko tee dudd digg ndakaaru ñu ngi ñu ngi koy nuyu ah. digg ndakaaru ci la ah. maître waxuma ak yow de dama ne waaw ko lu ci yoonu met El nag dama xam lu ko fi indi lu ko fi indi nag mu ngaa ah mais yow sëñ léegi léegi Ngaaka mooy wax loolu. déedéet waxul loolu dama koo nuyu rek. Ngaaka Blindé. waaw moom moo nekk digg Ndakaaru. Ah, maître moom wax dëgg yàlla ku nekk digg Ndakaaru. Ngaaka Blindé. du mu fay def. ah kii de moo ko wax waa kii. nu mu tudd yaa. ah comprendre ah, moo nekk Ndakaaru waaw dañ ko nuyu mais maître yow dañ ko nuyu. ah fan mooy digg Dakar. ci parrainage bi. parrainage bi digg Dakar na. lan mooy loolu dëgg yàlla baax yow ngaa euh, ah. ko blende ak euh, yow nekkoo digg Dakar mooy a xam. xale ba xamul luy digg Dakar. Ah, moom mii na la ko nañ la ko wax ñoom digg Dakar mooy lan. ñoom dama ko nuyu laa wax déet yow da ngay way

yow yaa dëkk di Dakar. waa demal kon maître baax na. merci waay jërëjëf li mu la wax de rëy na. man kay xaw ma ko ñoom ñaar ñii di ko wax laaj leen ko. xam man kay xaw ma lu ci jublu déedéet moom. daal moom lu mu ci ah, dëkk la wala dëkk. Ndakaaru dëkk la. fooy fooy bi. fooy dëgg bi. waaw. Ah. que du Géejawaay. Géejawaay. Ah. Géejawaay dëgg fi ngaa ko dëkk. yaakaar naa ko digg bi foofu la de ngaa ko fa la dëkk. ngaa ko fu mu dëkk. xaw ma ko de. ngaa ko fu mu dëkk. ak lëgul fi mu dëkk. Mbuur. Géejawaay. centre ville. ah centre ville non ngaa ko Géejawaay la dëkk. ah kon nag waaw moom kon nag wax nga yow man ngaa ko blende lu ma wut émission. dañ ko nuyu musicale la ci lii. aywa man nag wax dëgg yàlla. dañ ciy dugal ay rab dañ ciy dugal ay ngaa ko blende ay ak. ah déet ngaa ko dama koy nuyu rek. ah déet wala ko ci ci ci ci plateau boo yéen ngaa ko yéen a ngi nii yéen a ngi nii yóbboon ko fee mu leen di lëmbalal mu leen di lëmbalal indiwle ko boolewu ngaa ko blende la présidentielle très bien ku a laaj mi ngay teg euh, naan dëgg Ndakaaru ñu ngi nuyu nag gaaw nga dëgg Ndakaaru ay ca jaajëfal nañu ale àdduna incha allah merci beaucoup Mbaye Daane di la jaajëfal jaajëfal say gan également yéen it ñu ngi leen di jaajëfal di souhaiter un joyeux anniversaire à Yadi Wade foofu la ca Lamp Fall TV Yadi maa ngi lay souhaiter un très joyeux anniversaire di la ñaanal yàlla na ko yàgg féete ci darajay Mouhamad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu ñëpp jaajëfal nañ leen yéen ñi nu bokkaloon ak ña féete ca régie ba ci njiitalu El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo Fallou ak logistique bi yëpp yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier ma jox leen rendez-vous jeudi allah ci kattanu borom bi bu suba su Kambaay daane utuma ci toogu bi man ma retrouver leen demain incha allah 21h ci seen émission ataaya ci fii ci télévision Walfadjri KPI moom sa bopp moom sa alal sa dund ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show